jàmm na nekk jàmm man du ma nekk jàmm billahi wallahi taala ana waa gàmm bi commencé na te yóbbuma ko sax jaajëf gaay jaajëf gaay lu mu demee Mister Shake la voilà gars yi like les partager like les partager ñu waxtaan bi lakk leen partagé leen Mister Shake dégg ngeen ma sànq may waxtu xaw ma ndax dégg ngeen ma wala dégg leen waaye man décidé wu ma nekk jaam Sénégal dama doon waxtu léegi pour man laaj bi commencé gul sax xaw ma ndax dégg ngeen ma wala déggoom ma ne man du ma nekk jaam boo leen daree nekk jaam ngeen nekk jaam man ma dem Gambie ma jëm a nekk Gambie man du ma nekk dëkk boo xam ne Macky Sall ak Marème Faye Sall ñoo may jiite ak Aliou Sall لولو موم ماغي دون وقت خوما دا ديغ نين ولا ديغ لين بور مان لايف كوماسول صاح مان نان دولا نيهي نين نيك جام مان بالله والله تالله ماك سالو بو ساتشي الكسيون يي دا رافيت كو تي مان جو رونوس ا ما ناسيوناليتي سينيغاليس بالله كوك مون دا ما نكوي واتال واو ماك سالو بو ساتشي الكسيون يي ني بايكو مو ساتشي الكسيون يي Alusal Sall que maire maire Guédiawaye Timbo Nek maire Pikine Mansour Faye nest ngeen Mansour maire Saint-Louis Macky Sall gagné élection sàcc élection Amé, sénégalais yi Son ko Sonko bàyyi bu amé man je renonce à ma nationalité sénégalaise maa donne doon sénégalais génn publiquement mu ne nekkatuma Sénégal jël leen seen dëkk def leen lu leen neex waaye man jaam man du ma nekk jaam du ma nekk jaamu kenn Macky Sall nekk jaamu du ma nekk jaamu du ma nekk jaamu de la vie nit dangay am fulla am fayda doo nekk ci dëkk ñaari nit di jël xaalis bi di def lu leen neex waaw jël suñu xaalis di ci def lu leen neex yéen ngeen toog rek di leen seetaan man du ma ko def je vais pas le faire je vais pas le faire temps yëpp maa ngi leen di avertir temps yëpp gars yi laaj leen partagé leen temps yëpp maa ngi leen di avertir di leen avertir di leen avertir waaw dëkk boo xam ne da ngeen di toog rek ñu leen def lu leen neex ngeen bëgg nekk ay jaam ba kañ dëkk ci ndóol ba kañ au nom de quoi dégg ngeen président Ousmane Sonko wax na tey ba ne au de quoi léegi ñëpp ay wax au nom de quoi président Sonko wax na ba ne au de quoi comprendre waaw man dama ne Macky Sall bu ko Sonko bàyyee mu sàcc élection yi man Sénégal am dootuma fa sax teg sama tànk parce que Rasoul laay je renonce à ma de Sénégalais. parce que man bu ma nangu nekk ci ay ñaari baadoola yoo xam ne tekkiwuñu dara muy makki sàll ak Marème Faye Sall di jël xaalis lu di ci def lu leen neex dégg naa Pikine la demoon Marème Faye Sall sénégalais yu ñàkk jom yi génne Pikine au ngeen jël fari ah weexal foofu yëpp mu weex wala ngeen sol sax seen même boo leen ko son sottiwul farine sax comme France ni ñuy def au moins ngeen sol sax seen morceau yu xonk mais toog di wayaan مريم مريم مريم مريم كونيك تليفون بامي موجي دم أه، أه، أه، بيكين داو نون لاون سي بير سي بير اوتوم ني دي ساني اي اي ليتر سي بير مريم فاي فالو لين ماك سالا فالو لين غاي لايك لين بارتاج لين ين توب في ديك نياك فاي دي نيك سي تيلي دي واخ ريك كونفرنس دو بريس دي فا دوي واخ دي دوينا yéen Macky Sall bu len joxe occasion pour ngeen génne ko doo leen ko def légui ngeen bëgg nek à l'offensive nan ngeen di nek à l'offensive ah nan ngeen di nek à l'offensive sénégalais bo len génn len duñu ñu génn Macky Sall jox len ñaari occasion pour ngeen déloger premier bi moy le 8 mars deuxième bi moy le 10 novembre ah nit ki kay bu la joxe occasion pour nga génne ko réew mi dang koy génne réew mi waaye tok di wax fichier bi gisunu ko mi ngi jël 46 milliards di ko joxe mi ngi yokk à retraite bi 10 pour cent mi ngi def ay prêt man de tey bindaat naa Anthony Blinken bindaat naa ko lettre loolu laa bindaat naa ko lettre ambassade bi tam bindaat naa leen lettre pour wax leen Macky Sall ni muy jéem a sàccee élection man maa ngi xeex lu ma mën bind naa ko lettre dama ko njëkkoon bind lettre bindaat naa ko lettre envoyé ko lettre boobu mu ko envoyé laa ko envoyé waat yokk ci ma ne ko makki Sall Mac Biden daf ko recevoir euh, le le 9 ak le 10 décembre ci internet bi lañ koy défé Ousmane Touré maa ngi dégg mu nan day waaj dem Washington Wa gars like le partagé le. Ousmane Touré jarul ngay dem Washington parce que Biden invité wul ñom Macky ñom Macky seen kër lañuy ñuy ci ordinateur bi lañ koy défé sommet virtuel man de loolu la lire boudé ma maa wax leen Ousmane Touré nak néna day dem. Washington nous ñu yuuxu Macky Sall waaw ay pétition ak mm, ñoo bañ pétition Nous c'est vrai que c'est bien Ousmane Sonko dit. Nous sommes ci offensive nous Macky Sall leen occasion pour ngeen vous fi que nous mais sénégalais bëggul sénégalais bëggul le 10 novembre nous jàpp Sonko Khalifa Sall ñu fen la bàyyi xale yi ñu génn ñu tàngal réew mi ñu jële fi dëmm xaram yi nañ leen fi jële nañ leen fi jële man boo leen fi jëlewul affaire billaahi wallaahi wataalaahi man ma dem nekk Gambien man Macky Sall dootul nekk sama président jamais barki rasulullaay dama ko awaat billaahi wallaahi wataalaahi Macky Sall bu bu sàccee élection yi toog fii ba deux mille vingt quatre ngeen jël man ma renoncer sama nationalité jéem a su may su ma namee Afrique ma dem Gambie Gambie laay dem waaw man Sénégal ma suur ko complètement parce que man du ma nekk jàmmu kenn loolu APR man dinaa dëkk ci dëkk boo xam ne dañuy continuer di ma saaga chaque jour xanaa man sama nday liggéeyul ah man dinaa nekk ci dëkk boo xam ne dañuy continuer di ñu saaga ndey chaque jour di jël ay baadoolo di leen yóbbu pale ah au nom de quoi adduna bi yàlla est-ce que daf ñoo bind pour ay jaam yu mel ne Macky Sall Marème fay Sall di sàcc suñu xaalis di ko jëndee nit ñi di leen jox ay dix mille francs comme ni ko président ko waxee yéen boo leen ko bëggee ngeen def ko demuma Guinée Gambie laay dem parce que Gambie au moins Gambie jege na. Sénégal si biir Sénégal la ñu ngi fay làkk olof Gambie ak Sénégal benn la te am naa fi ay ay abonné yu bëri yu ma naan ma Mister Shake ñëwul waaw ma renoncé sama nationalité sénégalaise publiquement waaw parce que tamit parce que tamit man munu ma nekk chaque jour di yow sama xol di tàng jaruñu ko ay Macky Sall yi tuuti nañ pour jox pour yàq sama àdduna gars yi laaj leen partagé la Macky Sall tuuti na pour yàq sama àddina Marème fay tuuti na pour yàq sama àdduna Sénégal laay bàyyi dootuma fa teg tànk billaahi wallaahi taala maa ko waat Macky Sall président 2024 <laughs> loolu de saay loolu de yéen yéen yéen la dëmm xaraam yi dinaa bàyyi ñu ñuy continuer APR ay waay jële man du ma nekk jaamu ken du ma nekk jaamu kenn sénégalais wax moo bëri sénégalais dafa bëri ay naafeq gars yi laaj leen partagé leen wax ji yëpp jaru ko daaw ba ren maa ngi depuis depuis mois de mars maa ngi leen di affecté depuis mois de mars maa ngi leen di affecté ah mais nekk fi di wax rek wax rek sénégalais wax rek Macky Sall dem ba France di leen xas yéen sénégalais wax rek Youssou Ndour génn di leen xas sénégalais yi dañuy wax rek pendant ce temps miin waaye ñoom ñi ngi tibb milliards yi di ci def lu leen neex xam nga ne 46 milliards nga génn ko.

Jibril Jibril euh, euh, Ngom sàcc suñu yëf ngeen fay ko xaalis caat tëj ceer bàyyi Marème Faye dem Pikine di xawaar Macky Sall recevoir Jibril Ngom jaam bi palais Macky Sall recevoir Jibril Ngom palais enveloppe xaalis mu jox ko ñëpp di ko gis moo ko tey di ñu saaga ndey enveloppe xaalis est que du ma taxawee na le

amul amul amul première dame xaar ma demee parce que ngalol li ngi commencé comprendre mais au nom de quoi au nom de quoi ngeen pas Macky Sall muy def lu ko neex mel na Sénégal amul ay gentleman Hein wax rek conférence de presse du wër télévision Sénégal 7 Hein..? Sénégal 7. activiste yi di fa tamambalu fële nu mu tuddati beneen bi nu mu tuddati sene web xaar ma def parce ngelaw dafa bëri sene web gars yi di fa tamambalu seen TV tamambalu di wax rek conférence de presse après conférence de presse ñu gis fii Y'en a conférence de presse ñu gis fii euh, l'autre Guy Marius Sagna conférence de presse te conférence de presse amul benn njëriñ ndax ñoom leen rek moo leen intéressé na ñu bàyyi kilifa te léegi ñu bàyyi kilifa wal Walfadjri fépp la ñuy wër rek di wax rek waaye Y'en a marre boo leen yaakaaree ci ñoom le 10 le 10 boo leen yaakaar ci Y'en a marre yaakaar ne nit ñi dinañ di ngeen nax seen bopp ndax ñoom lenn moo leen intéressé ñu bàyyi kilifa te loolu sax intéressé wu leen

ndax chat ba mu génnee il trois jours waxul waxu marche barki démb caat dafa génn waxul waxu marche xama nga la la doon wax ah gaaw len ngeen atté ko ay waay dimbali nañu ngeen gaaw atté kilifa di saraxu Macky Sall il a fallu ñu bay ceer ngeen génn légui bo len lay da ngeen di génn le 10 Macky Sall tapet bi buqat bi procureur yu tapet yi buqat yi daal di kilifa légui ñu bayiko bala le 10 ñu bayyi kilifa wala ñu jappat léegi ñu jàppaat ceer wala ñu bàyyi kilifa te sax bàyyi kilifa laa gën a gis léegi bu ñu bàyyi kilifa ngeen toog seen kër marche amul Macky Sall noonu la leen di naxee chaque jour daf leen di yóbbu ci ay faux combat ñun kilifa taxu ñoo jóg léegi bu génnee kilifa ñëpp ne waaye am nañ victoire waay alors que moom sàcc nday élection yi la bëgg kañ ngeen di yeewu ñun faalewuñu kilifa ra teg ngeen kilifa deux mois kenn faalewul kilifa ñun fichier bi la ñu wax ñun Matam la ñu wax dañuy bokk ñun a fële la ñuy wax dañuy bokk Diourbel ñun dañ ne dañuy bokk Kédougou faale wuñu kilifa kilifa ba mu ko ba mu leen waxee génn leen da ngeen bañ ngeen bàyyi ba ñu bàyyi ceer ngeen bëgg ay Fou Malade kañ ko gëj a gis ah Sané kañ ngeen ko gëj a gis ñoom ñëpp kañ lañ leen gëj a gis ah bu ñuy wax du ñu wax sax lu yàgg gis nga Fou Malade li muy wax matu sax deux minutes mu arrêté. amuñu détermination parce que ku nekk am nga liggéey bu baax Fou malaat mi ngi TFM ñu koy dégg chaque jour mi ñaari jéegam dégg naa xaw ma lan lay dawal mi ngi dem ay séminaire Ghana ñooñu faale wuñ leen. billaay barke rasulilaay Sénégal du ngeen ay nit ni ko Akhenaton waxe man billahi wallahi watalaahi Macky Sall bu daree continuer di sàcc élection sàcc mairie ngeen bàyyi ko. mu ci législatif gën 2024 mu tok gën un ko man billahi wallahi dootuma sénégalais dootuma tek sama tank sénégal sénégal sama jabar la fa am sama sama famille na 20 ans sama famille joxe na fa ans ma man sama jabar ak sama dom la fa am ñom lay jël ne fekk len ma ñu fekk ma papier ñu ñëw Amérique man Sénégal dootuma fa teg tànk parce que dëkk boo xam ne da ngeen def seen bopp ay jaam mais yéen yàlla bu la bëggee dangay xam ne yàlla dalaa bëgg parce que Macky Sall daf ñoo ndaroon a rey ba ñu dee parce que neex set rey la ñun ñëpp Macky daf ñoo nax ku ko votalul 2012 votal nga ko 2019 parce que neex set rey la indi ay projet yoo xam ne ñëpp yaakaar na day egg ay terre ay jam ñaajo nax ñëpp ñëpp la nax di fen rek nax ñëpp waaye yàlla bu la bëggee indi la Ousmane Sonko ñu dem ba gis jikko dëmm Macky Sall yàlla bu la defee indi indilee Ousmane Sonko mu wane jikko baadoola Marème Faye Sall ñu gis ko quatorze morts léegi nag lan ngeen bëgg Ousmane Sonko c'est vrai que daf ñu waroon bàyyi ñu eggali combat bi le huit le huit mars mais defu ko parce que xëy na foofu la mun mënoon yem xëy na foofu la a yem léegi ngeen toog ci dëkk boo xam ne waaw ay Fatoumata Fouta Tampi ñooñu ñooy ñëw di leen di leen saaga ndey chaque jour naan Fouta Tampi maay man maay Fouta Tampi këyit baa ngi nii ku wax Fouta Tampi dinaa la tëj Fatoumata Fouta Tampi ñooñu ñooy nekk seen seen bopp yi di fa day ay ràngu ñooy dem ba rangu ñooy dem ba ba fële nu mu tuddati

mais Macky Sall mooy jaam Marème Faye Sall moy jam. oh non man je ne suis pas fier d'être sénégalais je ne suis pas fier d'être sénégalais nga gis ay serigne yu melni ay Jamil Mansour Sy Jamil barki démb mu guen télé mu ne Macky Sall xam résultat yi bu yag résultat eh, maire xamna ko bu yag parce que ni mu defoon 2019, lay def Mansour Sy Jamil nee mo tok ki kii Idrissa Seck ne ko 2019, mille dix élection bi lay wax mu ne ko Macky Sall cinquante lay am Sonko 15 lay am en tout cas li ñu waroon am yëpp wax na leen ko te Mansour Diam say si Jami nee niko Idrissa Seck waxee non la amé Macky Sall day sàcc élection avant muy commencer ay préfet ay Farba Ngom man dina dëkk ci dëkk dëkk dëkk ci dëkk bo xamné ne bu bon xalpulaar bu bon du xalpulaar yëpp a bon Farba Ngom jàngul jongul ah un simple griot waxu ñu né lii du affaire affaire euh, euh, euh, ethnie parce que griot dañu dafa noble ñun waxuñu griot au sens nu mu tuddati nu ñu waxante griot ci kii géwal griot mooy kuy wayaan am na ay ay géer yoo xam ne sax griot la dañuy wayaan man boog foofu laa ko jëlee Farba Ngom 27 gàlle ah pour téye vingt 27 gàllem Farba Ngom pour téye 27 gale mu ñëw. di sàcc ay élection ngeen seetaat ko ba kañ ba kañ kii dañ ko fi woron dégager lo def révolution té deret tourou deret bi ngeen don bañ mu tourou le 8 mars deret bu ko upp mo ndara tourou parce que Macky Sall dafa wat outat de ngeen Sonko wax na ko na 6000 policiers lutax ngeen di xaar muy outat 6000 policiers gis ngeen Parcelles Assainies tijji na fa ben commissariat bu bess Sicap Mbao non pas Sicap Mbao defe naa Sicap Mbao la xaw ma en tout cas golf am na fa benn commissariat bu bu mu tijji am na beneen commissariat bu mu tijji jënd ay blindé Pape Alé du leen wax ne blindé yi ñu ngi fépp mel ne Macky Sall mooy seen baay tappet boobu Marème fay Sall seen xol yu ñuul yu iñaan rey quatorze personnes di leen menacer lu fi amoon dootu fi amat mais Sénégal yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk fayda vraiment vraiment ba pare élection mu ne da koy sàcc sëriñ yi toog di seetaan bu ñu waxee ñu naan la boo deewee safara nga jëm ak boo deewee àjjana nga jëm axee na ton li mu wax dëgg la da ngeen dara perte fii perte fële da ngeen dara perte àllaaxira perte àddina ñun de perte nañu ndax ñun lu bon bon dund ñun ñu ngi nii Amérique ñun Sénégal faalewuñ ko ñun utuñu poste ñun suñu yoon bu doon loolu la dama naan dina fi nekk di wax ne damay bay sama nationalité man Macky Sall du nekk sama président 2024 munul ne munul ne waxuma la sax Macky Sall Macky Sall defetam fii lay commencé fii fii weer mois de janvier la nguuram di jeex bu jeexul man ma bàyyi Sénégal dootuma fa teg tànk billahi wallahi tàllahi Macky Sall sàcc na Dakar Aliou Sall sàcc na Guédiawaye Timbo sàcc na Pikine wala Mansour Faye sàcc na Saint-Louis Sénégal yi ngeen ànd ci lan la lan la ñuy jooy Sénégal lan lan la ñuy jooy Sénégal da ngeen ñu koy yombalal sax ñun ñun immigré yi da ñu koy yombalal parce que ñun bu ñu bàyyee Sénégal da ngeen ñu koy yombalal kenn dootu ñu wax ay wax waxu waxu kesaw kesaw di xool li ñu am ak lu ñu amul ñu ñëw dund suñu vie bu simple fii fàtte fàtte Sénégal yóbbu ñu jabar mu jeex ndax suñu famille comme ni mu la ko waxee man suñu famille joxe naa fa dépense trois vingt ans. billahi wallahi taalahi ñun bu ñuy xexu luñu suñu bop mais mais waru la nek nangu nek ay jaam Marème fay Sall du tous Marème fay Sall la bu mak la du mané mom tan yëpp mang koy xass xas ah, ton barki démb lay dogo xam nee ah nekkate yoo nekkate yoo Marème moy moy moy mooy jaam bi nekkate yoo Marème Faye mooy joxe malet yi nekkate yo Marème fay moy jënd sëriñ yi sa jëkkër bu boné c'est parce que da nga bonne famille boobu kenn baaxu fa même Adama fay sax wóoluwuma ko man waaw ñaari famille yu gën a bon la ñu yàlla nattoo muy famille makki Sall ak famille Marème fay Sall loolu mooy suñu chance ñun Sénégal malchance ñaari famille yu gën a bon yu gën a baadoo la ah la ñuy yàlla booleel ana Mansour fay du moom lañ jox transport tey est-ce que transporteurs yi ñu ngi daw dama lay laaj Mansour Faye lañ jox transport.

Hein? lan lañ fay 15 jours nga a ko ñaari mèche paquetu mèche mais le bi am Sénégal ak nguuru Macky ba li ci doy Penda Ba wolof dootul président Sénégal oh ay Penda Ba Penda Ba ne que na wolof dotul nek président Sénégal bu waxee wolof C'est... mooy C'est mooy mooy lu mu mënti doon loolu mooy tukkuleur yi ñoo fiy nekk ba ilaa yow mi diin parce que dañoo am président boo xam ne yëfu dëmm lay def yëfu ethniciste la preuve premier ministre bi Amadou Ba Amadou Ba lañ ko ndara jox premier ministre bi Amadou Ba lañ ko ndara jox beneen Halpulaar tekkiwuñu dara duñu ay nit Halpulaar yooyu laa wax de xaw ma lu tax ngeen bon moo ñu jaaxal lu tax ngeen iñaan moo ñu jaaxal yéen di ngeen da di lii mooy indi guerre ethnique ci biir réew parce que bu ñu demee ba naan pël du mbokk c'est pas vrai man samay abono yu bëri ay pël lañu samay abonné yu bëri ay pël lañu boo leen liiree léegi léegi ngeen gis kenn ku sant Diallo ku saaga Macky Sall boo leen xoolee bu baax léegi ngeen gis ku sant baax ku saaga Macky Sall nduulu majj moo gënoon ndool démb rek am na ku ma bind mu ne ma monsieur Cheikh bàyyil nduulu majj man nduulu majj laa dëkk waaye bëgguñu Macky Sall gars yi laaj leen partagé leen moom laaj bi yomb live bi attaque tous azimuts lay doon deux de temps laa bëgg def dal ci baadoo la xaraam yii gis nga lemm-lemmal jeex na man de pare naa du mu fi nekk di naan ay phosphate ak ay zircon man bàyyi naa yooyu man bàyyi naa ay phosphate ay zircon bàyyi naa yooyu gis nga benn kenn ngi nii Mariama Diallo ñoo la gën a xam ne Macky Sall baaxul parce que tukulóor yi ay jullit lañu te yàlla bëggul kuy féewale ay nit mais tubaab bi dañuy jëloon def jàpp parce que dañ ñoo ñu gën Macky Sall bëgg jël Amadou Daouda Diallo teg ko suñu kaw muy muy muy dem duus suñu kaw jël Amadou teg ko suñu bopp muy daw muy muy muy def muy dem duus suñu kaw mu jël ah Matar Ba borom bopp bu rëy boobu mu teg ko suñu bopp muy dem duus suñu kaw mu jël Malick Sall pa ñangal pa boo xam ne bu dundaatee dix ans na daw ba safat muy day suñu bopp mu jël nouveau doyen des juges bu bees Mahad Mahamad Diallo la tudd xaw ma nu mu tudd ay Diallo rek ngay dégg ay Ba ay kan wax leen ma mu jël ay jaawo jël ko suñu suuf jox jël ay Néné Fatoumata Tall mu def ay xaw ma ay saak mu ciy def ay photo jaawo di jël ay photom di ko def ci ay kay wax leen ma Haalpulaar yi ana Abdoulaye Sow ak xonqaayam mi doon wax naan événement mars yi li tax mu am c'est parce que nawetaan moo amul woon nawetaan moo amul woon moo tax. xale yi génn xex mu am 14 mort mu jël Racine tala magu Fou Malade ah mu jël lts melni moko mom mag dégg ngeen tey pros wax RTS télé makissal duñu sax woné duñu sax wane Ousmane Sonko duñu won kenn wax len ma benen beneen Haalpulaar bari nañu wax len ma Haalpulaar yi ma ngi faté Abdoulaye Daouda Diallo yore nday suñu ay milliards wara dem assemblée nationale.

dem leen après ngeen seetaan ko Sa Ndiogou bu leen dem léegi gars yi parce que tey live bi du yomba Racine Talla tudd naa ko dem leen après ngeen dem ngeen seetaan Sa Ndiogou le 29 defe naa mu invité benn waa joo xam ne APR la nekkoon te kooku Diallo la tudd Amadou Diallo beneen tukkuleer bu mer mu ne Macky Sall daf leen trahir Amadou Diallo def leen trahir Macky Sall def fi dara moom ci boppam nee na 2011.

Macky Sall tout tukkuleer yi da len di utiliser kooku la sante def joxuñu ko gat ben liguey lañ ko jox kudd te mom dafa am chance sax te kudd ay salaire koy fay le 21 juin 2011. Macky Sall moko jox 150.000$... jënd essence ngeen dem ngeen talpikin. Pikine Sall <coughs> ñom bañ

seen affaire la man de dootuma ñëw ci senegal dëkk bu salte dëkk bu salte suu Macky Sall dëkk boo xam ne nit ñi dañoo dof boo waxee rek ñu ne sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi ba kañ ñun dañoo gëm sëñ Touba dañoo gëm El Hadj mais sëriñ yi fi nekk fii dëkk bi di dool ñu naan leen muñ leen du sëriñ yëpp bon am na sëriñ yu baax démb gis ngeen fi benn sëtu Baye Niass bu génn di dawal ci autoroute bi muy xas sëriñ yi boo leen gisee nit ñi di saaga yéen tax nit ñi di saga mais Macky Sall nan lay jëlee 150 000. mille jox Amadou Diallo militant APR 2011 le 21 juin Sa Ndiogou moko ra interviewé dem leen ngeen sétane man mako sétane 30 minutes man lepp lay sétane Wa APR bi dafa la na xas nee Farba Ngom dafa sacc suñu xaaliss APR le bokk APR le bokk mune Farba Ngom dafa sacc suñu xaaliss ah hein? wax leen ma benen xalpulaar balaa may faté xalpulaar yu bonne yi nek ci nguur gi la wax de dëmm xaraam yi mais yéen du ngeen ay nit mais lan mooy ndey ngeen yor ay milliards yor ay vingt sept kër di dawal ay 4-4 ba pare bëgg sàcc élection mais vraiment c'est c'est incroyable ah kii nee na Baye waaye bu leen ñu sonal ak ay Baye Niass dañuy làqatu un mois deux mois doo leen gis Baye Niass lu tax génnuloon ba ñu ba ba Jibril Ngom defee li muy def ñun soxlawuñ leen Fouta Tampi soxlawuñu leen 27 gàlle nan la ko benn nit di amee am courage ñëw di ko wane ne lii am te kenn mënu ci ndeyam sëgam géwalu Macky Sall moo am 27 gàlle kon Macky Sall ñaata gàlle la am Amadou Ba ñaata gàlle la am Mimi Touré ñaata ba gàlle la am wax leen ma Youssou Ndour ñaata gàlle la am ñoom ñii ñëpp di leen wax jàmm jàmm jàmm jàmm te ñoom ñu am ay kër Euh, euh, euh, Almadi di am ay TFM di am ay RFM di am ay employé di dund dund bu neex dëkk bi salte seen yoon nekk ci parce que ñoom Almadi la ñu nekk bëgg defar jam ñaajo pour seen bopp comme ni ko kii waxee Tunkara waxe ah yéen ñu ñuus leen noqu leen ba ngeen daw le 8 mat Sonko ñu tooñ Ousmane Sonko ñu tooñ waxoon naa la waxoon naa la Sonko baadoola kenn du ko bu bu bu suuf doo ko jox loxo Macky Sall dañ ko waroon bàyyi ñu liquider ko mu abal ñu suñu réew waaw Marème Faye Sall dañ ko war a liquider mu abal ñu suñu réew gars yi fi mu nekk c'est la guerre c'est la guerre tey rek bind naa Biden bind naa euh, secrétaire bi nu mu tuddati secrétaire euh, euh, Blinken pour wax leen ne Macky Sall Biden waru ko sax invité Biden waru ko invité le neuf ñuy wax ci corruption parce que Macky Sall moo gën a corrompre tey bind naa ko lettre bindaat naa ko lettre lettre baa ngi fii sama sama email bind ko ambassade bi waaw parce que nga bàyyi ba élection jot nga génn 46 milliards naan da nga koy jox nit ñi pour ñu voter mais ñii ay nit lañ mais lan moo tax ñu iñaan lan moo tax ñu soxor man moo ma jaaxal pourquoi Macky Sall iñaan soxor yow suufu Sénégal bi yëpp jaay nga ko man tey Ousmane Sonko ba muy wax tuuti ma tuuti ma jooy. vraiment dafa metti mais lu doon ne dëkk nga jaay lépp suuf si yëpp jaay nañ ko géej gi jaay nañ ko ah pétrole bi lépp ñu jàppale ci sàcc ñu jàppale ci gestion bu bon ci corruption quatorze morts mais ngir yàlla doole ñu delloo suñu réew ngeen dem mais boo leen ko deful mais nañ leen fa jëlee lu tax ngeen ñàkk fayda Sénégalais lu tax ngeen ñàkk fayda di ma wax ay waxu élection lan mo tax ngeen di wax élection mais do len Macky Sall do len dem ngeen jele gu ngeen ko pale ba lo len di xaar ay élection yéen jox na len raison pour ngeen jele ko pale ba ndax lu dool ne Matam mu na la bokkoo lu dal nak jurbel mu na la bokkoo ministre de l'intérieur tay gis ngeen Ousmane Sonko di len génnal code électoral mu ne amul fenn fu ñu wax ne ministre de l'intérieur war na dugal loxoom ci ci élection mais loolu du motif pour déloger nit ana armée bi lu tax ngeen ñàkk fayda Ousmane Sonko di wax naan président Sonko naan le huit mars dama bañoon dama bañoon kii am nu mu tuddati coup d'état nekkate président Sonko nekkate président Sonko du sëñ Mountakha moo ne ko waxal bàyyil affaire mu sedd El Malick moo ko wax dem leen 7TV après ngeen dem 7TV dem après ngeen dem 7TV El Malick dañ ko fa interviewé le 29 bii passé man lépp laay seetaan. le 29 bi passé euh, euh, El malik dañ ko invité 7TV mu Sonko ba mu jugee Colobane bañ ko jappé avant muy déglu sax ñom sëñ Moutakha Sonko ci bopam mo wo El wo euh euh Faye fay ne len il faut que ma guen def déclaration parce que suma ma deful déclaration dekk bi dina tak palais bi blindé yi wër nañ ko blindé yi wër nañ palais bi té dañuy day am coup d'état Sonko ya ñu togn président Sonko ya ñu togn da nga armée bi pouvoir deux ans armée transition deux ans dëmm Macky deux ans dëmm Mariam Faye deux ans dëmm APR Sonko déjà 46 milliards Macky Sall mi ngi pour cette élection yi wax nga milliards de dépenses dépenser la campagne électorale Sonko wax nga ne géej bi jaay nañ te loolu ñu ngi ci deux mille vingt et kon deux mille vingt deux fan la ñu jëm deux mille vingt trois fan la ñu deux ans yooyu armée bi nekkoon fi moo gën Macky Sall nekk fi waxoon naa leen ko ngeen may saaga nday le 9 mars damaa bloqué ay patriotes yu bëri Mister Shake yow da ngaa bëgg taal réew mi non il faut ñu gunge ko dëm ma xaraam kan moo koy gunge kan mooy gunge ay jaam kan moo leen di gunge ñii nga xam ne dañoo tiit. bu ñu amoon mille milliards du tax ñu bàyyi parce que dañoo iñaane sénégalais yi yéen wax ji yépp loolu la wax ji yëpp loolu la yéen da nga yaakaar ne Macky Sall xaalis moo ko fi téye da nga yaakaar ne Amadou Sall xaalis moo ko fi téye Macky Sall xaalis téyewu ko Macky Sall lii Amadou Sall am rek mën na ci dund ba dee te du jeex ndax Amadou Sall lu bon bon war na denc dix milliards wala vingt Macky li mo li Amadou Sall xaalis téyewu leen xam la moo leen fi téye. nguur teewu leen fi xaalis teewu leen fi xam nga la moo leen téye iñaane sénégalais ak iñaane nit ku ñuul ak iñaane sonko loolu rek moo leen téye ci nguur gi barki rasool lay ku wax senegal amul xaalis da ngay fen 46 milliards nañu jëkki-jëkki rek génne 46 milliards nii ah dañoo soxora iñaan man nag dëkk bu mel noonu la laa fay def man lan lay def ci deuk bo da nga da fal nit mou lay à petit feu parce que tamit di la que di la dit Sonko wax nako xifal la xifal la xifal la mel na xar rek nga xifal ko bamu xif nga jël ben xolitu que ko ko sanni lolou moy que famille chaque jour ñu tok ci télé yi di wo ay conférence de presse dem Sénégal 7 dem dem dem Sen TV fu nee ñu dem fa di mbele mbele rek di wax rek di wax rek Macky Sall di leen nax di leen woo ci ay foo combat kilifa wooy kilifa dafa war a génn wooy kilifa soob yaakaar ne loolu mooy combat kilifa bu génnee est-ce que day tax xale yi liggéey est-ce que day tax xiif bi wàññeeku ah dama leen di laaj da leen di xëcc ci ay faux combat ñoom ñoo ko tey bàyyi keer mais kañ ngeen di nekk ay nit

ñàkk ngeen fayda kañ la Cheikh Anta Diop gëj yëngatu université bambay am na étudiant bu fa dee ndax intoxication alimentaire <coughs> université bambay keroog lan laa leen waxoon deux cent étudiants lekk seen biir yi di daw ñu yóbbu leen hôpital ma ne étudiants yi dañoo ñàkk fayda may wax ñuy génn di sol seen yére xonq naan dañuy def marche pacifique ma gis dirigeant Cheikh Anta Diop bi borom karoole xaw ma ñoo ban ñoo ban ñoo bañ la bokk xaw ma mu naan way way xool leen ñu ñu ngi marche marche pacifique duul booy dañu waroon rajaxe foofu yëpp deux cent personnes nan la ñu mën a lekkee lekk bu bon bon ba kenn dee ci léegi ñu naan non non deewul def nañ autopsie bi xam naa covid moo ko rey wala dafa amoon lii affaire la ngeen di toog dëmm xaraam yi di leen rey benn par benn nee naa leen 2024 ñu bëri duñ ko fekke sëñ Moustapha Sy wax na leen ko ku baaxoon ci mi dee nga kilifa aada dee kilifa diina dee na borom xaalis yëpp dee nañu gisagu leen dara ñii ay nooxoor lañu ay baadoola lañu ngeen nekk fi di lemm-lemm ah ay ñoo ñu ngeen di gëm ñooñu ñoo leen di libere دمج مولاي ليبري مستر لام لامي مولاي ليبري مستر ور ورل مولاي ليبري كريم خروم حق مولاي ليبري دما لين دي لاج كريم خروم حق مو لين دي ليبري كو خامني دا فا ген دي خاص كليفا نيسان كون موم دي بوك سي كومبا بي دي كريم خروم حق خانا دو بوك سي كومبا بي دي مو مو لين دي ليبري ها كلادور l'expert expert en en en zircon expert en pétrole Nous dañu faale ndey pétrole lan mooy pétrole Nous avons wu ñu pétrole Nous savons ce que nous bëgg dégage Macky dégage Macky bu dégage, on règle le problème du pétrole problème pétrole problème zircon bu nous ñu wax de zircon ay pétrole ay ay ay lu ma xamul problème est neex régler on dégage Macky on dégage Marème Faye

gars diko di journaliste diko ko way dam wax na leem leemal way loolu mooy libérer Sénégal chat moy libérer Sénégal chat mi tok il y a deux jours di di ñaan Macky Sall dañ leen di ñaan ngeen gawa atté waxu libérer dé dañ leen di ñaan ngeen atté kilifa légui lan la wax nañu libérer kilifa man bama wax libérer kilifa du tay première semaine bi la wax nañu wara libérer kilifa ñi ñoo leen di libérer ñi ñoo leen di libérer activiste Cheikh hassan Diouf Cheikh hassan Diouf mo len libéré yow Sénégal fu toll nga naan dañ ma cheikhal ak Sénégal fi toll buñ la cheikhalé sax waroo ko wax mais tok nan dama dem dañ ma cheikhal toog ak sawaay kan la togal amet ay dara sen jotay la tuddu xawma dañ maa seexal ndax sama maam xaw ma lan moo dem ci sëriñ bi sëriñ Touba ñun ñoo ko doon sama maam dafa daan liggéeyal sëriñ Touba moo daan génne nag yi moo daan def lii sëñ Mbàkke gaawaan moo foofu laa dem ba mu fa demee mu naan xaw ma lan la wax rek mu mu ne cheikh bi mu ne cheikh bi loolu rek mooy loolu mooy dañ laa seexal parce que wax na rek ba ne cheikh bi rek nga ne dañ laa dañ laa seexal Ahmed Aïdara ne ko ba jox nañ la kaala gi mu ne ma non non jotaguñ ma jox kaala kon kay doo cheikh Cheikh Assane et puis boo nekkoon cheikh mais lol suñu yoon nekku ci instant bi bàyyi man man man man moi moi moi moi <laughs> c'est pas comme ça que vous allez libérer le Sénégal Karim Xurum Xaq man man man man Fatoumata Danso Fatoumata Danso man man man sol sol sol t-shirt militaire sol bère militaire way man man amazon Amazone léegi man may dem garder Sonko damay baye sama liggéey France xam nga damay baye sama liggéey suma ma ma nek garde rapproché Sonko bul ma fay noonu ngén di libérer Sénégal noonu ngén di libérer Sénégal ku nek di wax rek man man man man man daf leen ni Guy Marius Sagna daf leen ni Guy daf ni Ousmane Sonko wax jeexna élection jeexna na Macky Sall xamul dara lu rapport de force waaw mais Sénégal ñu ñu dàq yuuxu nous tardel Bon, waxee ñu naan bàyyil dàmbooj bàyyil dàmbooj Mr leem ana Fatoumata Tampi kan les a wax au nom de quoi Sans que président Sonko ci bir conférence de presse mu au nom de quoi si Fatoumata lañ ko dégagé parce que Fatoumata la euh, Pape Ale

jeexal nañu parce que liñu def sank dama nek ci live bi ma ngi won Sénégo di di di di di commenter ñu jékki-jékki coupé live bi Sénégo ma dem Séné News di commenter lan la bind dama né Macky Sall ak Marème dañ leen wara a ndax haute trahison dama ko wax tuuti Sonko tamit non la jeexalee yëfam mu ne Macky Sall li def haute trahison la kon man dafa melni ne Sonko ñoo ñoyam yem xalaat nit ki nak bu defee haute trahison dang koy déloger ndax jaam bu melni ne gars gën leen laaj gën leen partager. nee naa leen tey deux heures de temps laa leen di jox. yaa jëf <laughs> I'm so pissed. you know <laughs> boy sax ñu may nuyu xam nga nee naa mer. I'm I'm mad because we have a dictator in in in my own country back in Africa. yeah we have a dictator over there. nee naa leen dañu am benn dictateur Afrique booy tubaab bi nee na lu tax nga mer <laughs> comprendre ngeen. gars yi laaj leen partagé leen tey deux heures de temps tàng laa leen di jox man Sénégal li tax ma am courage nii. damaa waaye pare Sénégal amatuma lu ragal parce que foofu la ñu toll foofu la ñu toll dañu toll ci baadoola Macky Sall ak Marème Faye Sall bu ñu bëggee ci nguur gi c'est leur problème bu la neexee nag ñu reyaale ñu bëri bu la neexee ñu reyaale Sonko reyaale El Malick parce que El Malick ne ñoom pare nañ pour joxe seen paquet nañu reyaale Mister Shake rey Tunkara mais kay foofu boo seetaanee live am dabaax loolu la wax d'abord Casamance parce que au nom de quoi Macky Sall di a ay militaires di bëgg déstabiliser mais mais mais mais Casamance mais l'autre si c'est pas une offense n'est-ce pas euh, qui qui doit euh, résulter n'est-ce pas de de de euh, ñu déloger Macky Sall lan mooy offense bu gën a garaaw lan haute trahison bu gën a déclarer la guerre à ton propre pays Yo, nga dem ba Guinée-Bissau

Macky Sall da leen indi ci benn xeex ngeen dépenser ay millions ci ay ay avocats moo gën a xam ne da ngeen di bokk Matam par force Macky moo la ko gën a xam moo gën a xam ne da ngeen bokk Diourbel moo gën a xam ne Kédougou saawaay day bokk billahi wallahi taalaahi Macky moo leen ko gën a xam mais da leen di perduloo seen temps pendant ce temps loolu mooy plan B bi boo leen waxul dara boo leen waxul dara mu sàccee noonu élection yi mais boo leen waxee mu bàyyi mu jëloo leen.

état amul négocier yéen xamu leen Macky Sall fichier bi di ngeen si jot maatam di ngeen bokk mais boole leen jotee fichier bi da ngeen tax est ce que loolu dafay tax sàcc bi jeex loolu mooy plan D. plan D bu baaxul mu ñëw plan C mooy lan lan mooy plan bu bu war a tirer tirer euh, euh, euh, yi ñu war a voter mën na jël temps mën na jël temps wala. خالص بيمو جيل 46 مليار جوكو خاوما 200 خاوما نيات نيات نيات فامي لي نيوخ لا سيبلي خاوما 500 ميل فامي خاوما مي داغي دو توك موي جيل 46 مليار ديكو جوخ اي فامي مي لول وارو لنكو نانغو وارو لن نانغو موي جيل 46 مليار ديكو ديستريبيي تي تي تانيو نيك تي الكسيون فان لنكو ديف تي بودجي بي او نون دو كوا نونو لاي ديف ديكو ديف ديكو ديف با جور الكسيون كوم نيكو جاميل واخه le 23 nous annoncé nous sommes Aliou Sall maire Durban mon maire de a ne leen sacrifier Timbo Macky ni xamé bo ko Timbo sax sacrifier sacrifier mais ça du ko sacrifier non Mansour fay sax mu sacrifier ko mais dañ a ban ban est la en tant que ministre tay transport ngi grève kan mooy yor ministère transport Mansour Faye am na lu muy demee Macky dàq ko mais mais Antoine Diome dañ ko war a dàq am na lu muy demee mu dàq ko noonu la leen di naxee gouvernement bi muy waaj a ba mën na dàq Antoine Diome dàq Mansour Faye mataar Ba ñoo ñëpp mën na leen dàq bu ko dàqee ne gars yi ne wey eh, Macky changé na jël ama du Ba i Amadou Ba mais Amadou Ba day politique kon mooy dauphin bi moo ko nar a remplacé et kii de du def troisième mandat. di dox sen maañ di len xëcc ci agenda am di len xëcc ci ay combat am Barthélemy da ngay wuyu le 10 Barthélemy genn kërëm non non bu wuyu dama tok au lieu ñu tangal tal nday dëkk bi je jëppeet le 10 le 10 da ngeen waron profito ngeen génn ko parce que occasion yu mel non Macky Sall dootu len ko jox c'est fini occasion ngeen genn di marche dootu len ko jox même le 10 bi nga xam assemblée ngeen bëgg a dem du leen jox du leen jox occasion bobu dootu lañ ko joxat mak gis nga yalla bu la taccu da ngay fecc yalla daf leen taccu le 8 mars ngeen ne do leen fecc mu taccu leen le 10 novembre ngeen ne do leen fecc léegi da ngeen yaakaar da leen di taccu le 10 décembre le 10 décembre da ngeen yaakaar mak Macky Sall da leen di taccu du leen taccu le 10 le 10 décembre comme kilifa rek ngeen di joy kilifa ngeen di joy dina dina baye kilifa wala mu jappat ceer te bàyyi kilif sax lay def ana député yi où sont les députés ñu Ndiadière hein mais la liste peut continuer xam nga mëna fi nek di citer di citer di citer li guddal wax len Macky Sall dafa def haute trahison Macky Sall dafa def haute trahison vraiment vraiment Bougazeli xoolal Bougazeli xoolal xoolal xoolal les deux députés ñu dindi mais xoolal Sonko ni ñu dindee woon en 15 jours 15 jours ñu dindi immunité Sonko ba pare woo ko tribunal par force mais député yi xoolal temps bi mu jël xoolal temps bi mu jël yaana maar nag li ngeen wax marche bi ñaari raison ñetti raison ngeen wax ñaari raison bàyyi kilifa jàpp député yi loolu ngeen wax kon bu ñu bàyyi kilifa pour ñu def député yi da marche même député même bu ne leen bàyyi sax da ngeen marche parce que fichier bi boole leen ci fichier bi c'est-à-dire guerre day saf mondial man li tax ma ne damay joxe sama nationalité parce que man j'en ai marre de ces activistes j'en ai marre de ces politiciens j'en ai marre j'en ai vraiment marre occasion bi ñu am bu leen rëccee élection yi.

premier ministre amna na lu muy demee sax mu xëcc waa ba yeewu askan bi parce que Mamadou Ibra kan wax lako Mamadou Ibra kan néna na Sall dafa ba xëcc yenn wa yeewu askan bi loolu moy Sénégal loolu moy Sénégal il faut que le 10 il faut que mu génn ñëpp génn ku nekk sa bop transporteur transporteur mais yéen xanaa doole na ay sénégalais.

lenn motax kilifa député yi ñu wara japp mais bu len ko ayemale fofu bo leen ko yemale ci ñaari doléance yoyu Macky Sall marche du am parce que dina dina leen defal la ngeen bëgg boole leen ci fichier bi boole leen ci dañuy bokk Matam boole leen ci dañuy bokk fep fu ñu xañ boole leen ci élection yi bu jaarul yoon dañ lay déloger am na nu muy demee sax suma doon yéen sax dama naan premier ministre bi kenn du ko fi nat kenn du ko fi kenn du ko fi défé waaw am na lu mu doon demee suma doon yéen dama naan Macky Sall loi bii nga bëgg voté assemblée du jaal la parce que noonu ngeen defoon Ablaye Wade le 23 juin Ablaye Wade noonu ngeen ko defoon le 23 juin ngeen da ngeen di dem da ngeen di dem ambassade xam naa ambassade euh, assemblée kon Macky Sall bu gisee ngeen di dem assemblée day tiit du leen bàyyi mukk ngeen marche léegi nag bu leen sànnee benn yàq. kilifa moy yakh bi wala mu sanni len benen yakh ñaari député mais ñaari député buñ len jappé lan lañu lan lañuy lan lañuy ñuy mais Sénégal kañ ngeen di yow biyaay ak ak Mamadou Sall buñ len jappé day mel ne vacances ci ñom xana yéen déggu len bougazeli lu mu leen wax bougazeli néna bañ ma jappé prison man xaw sax né prison la nekkul maa ngi doon football.

chambre deux cent personnes dama leen di laaj chambre dix deux cent personnes ah ñaari douche doxat yi di jolli doxat silencieux doxat euh, euh, sonore ah borom taap yi douche yi xasaw yi fel yi jinax yi kañe yi paquetage sa mo góor ne la sës la rek doxat yi surtout

nga xam ne ñuy toog du ñu sangu ñii dof ñii am tuberculose ah, ah, ah, ñii am corona borom góom yu rëy yi dëtt yi borom borom mais mais xool li am rëbës xamu leen ko sax doxat yi si xasaw yi wax leen ma la moo am rëbës wax leen ma dambaloo ceebu jagan lan mooy jagan tur bi rek dafa ñaaw ceebu jagan jagan dégg naa boo ko lekkee da ngay da ngay seere da ngay seere nga seere une semaine douche yi dañuy rang cinq minutes lañ la may cinq minutes pour nga dem douche boo toggee si cinq minutes bu jotee ñu ne la génnal nga dem billahi barki rasulaay li may wax du ay caaxaan dafa fees dafa fees ba nga xam ne léegi paquetage sax dafa xew wi laajal Burmel Burmel xam nga la moo xaw langaamu apprenti boo nelawee trois heures de temps gars yi fëgg la ne la eh, jugal parce que dafa xat léegi nga jàppandu di nelaw

kon ñooñu taxuñu ñuy xeex jàpp député taxuñu ñuy xeex libéré kilifa taxuñu ñuy xeex xam nga xam nga ñun lan moo tax ñuy xeex Macky dégage il est temps de dégager parce que góor ca wax ja gis nga gis nga Nous ca wax ja ñun suñu parce que le 8 mars nous am un.. protocole charte bu ñu di wax charte de non violence ñun am nañ charte bu yàgg gars laaj leen partagé leen des na une heure temps nee naa leen tey ñun du may dara gis nga charte bi ñu am mooy les diis commandement lan la Sonko waxoon dama leen di laaj sëñ Mountakha dinañ bàyyi makki Sall mu eggali waaye Macky Sall dafa am dix commandement dix commandements yi lan moo ci gën a fës élection il faut mu am Macky na génn na wax ne du def troisième mandat xale yi na leen nampaay. ak lan bëri na ma men ñett yooyu laa ci jàpp dix commandement yi lenn rek la ci def élection yi te parce que Sonko dafa xam ne loolu moo ko ci intéressé parce que Sonko dafa xam ne ci biir élection yi ci la ñuy gën a xam dëmm Macky Sall ci la ñuy gën a xam iñaan Macky Sall ci la ñuy gën a xam dof mari fay ci la ñuy gën a xam gourmandise fokkale APR Ousmane Sonko dafa xam ne ci élection yi lañ koy xamee yàlla suturaal ko mu def coalition yàlla moo suturaal Ousmane Sonko gis nga yàlla bu la bëggee yàlla bu la bëggee parce que Ousmane Sonko li mu réalisé nii c'est extraordinaire sëñ Moustapha Sy wax na ko Sonko moo ma ko moo ma njëkk contacté Sonko moo ma njëkk contacté après Khalifa Sall doon la ñëw comprendre nga sëñ Moustapha Sy joxal leen ma ko ay cœur ñii ñoo ay patriote ñii ñooy patriote sëñ Moustapha Sy

ñoñu nek ay les sëñ Abib si Abib si gis ngeen ni mu doon foné Ousmane Sonko ki am affection bima am buy wax ci Sonko sax di Sonko dafa ne du wax Sonko dafa du wax tay waye ci nature la il faut que mu wax waaw am général gis nga tay conférence de presse bi parce que ñi sommes ak mom iñaanuñu iñaanuñu moo fa waaye moo ci dàq wax moo ci ëpp fit moom moom mooy suñu général moom moo mun a galvaniser troupe yi kon nag politiciens yi ni ñu def ba ànd ak Sonko activistes yi yéex nañ koo def mais nag mieux vaut tard que jamais mieux vaut tard que jamais ñoom ñëpp nañu ñëw ay Cheikh Assane Diouf ay ay ay ay Karim Xurum na nañu ñëw ñu dem ci ginnaaw Sonko Guy Marius Sagna nu mu tuddati door bàyyi leen seen waxu picc yi bàyyi leen waxu.

duñu ko dak gis nga ne day def premier ministre bu defé premier ministre duñu sétane muy tas assemblée nationale duñ ko sétane motax sax motax mané yi da nga ñak fayda da nga ñak fayda parce que Sonko néna Sonko néna na loolu la bëgg def kon kay le 10 le 10 waru len sétane Macky Sall di tay la lan tay du le 3 tay le 3 non wala tay le 2 tay le 2. le 3 ah, <coughs> suba suba lay affaire nationale assemblée nationale suba le ñuy def changement pour Macky Sall premier ministre mais une semaine après ci la ñuy dem plénière madame députée, nous voter voté ko à partir du 11 Macky Sall bu ko neexee mu le 11 le lundi 11 12 13 le 13 lay doon comme moom dafa affaire fétiche.

Youm wax na xam nga bu ko Sonko waxoon ñu ne dafa bëri histoire Youm moo ko wax bu pur en France wolof gis nga bu sàccee élection yi dëkk bi day takk jàppeet lu tax ngeen ragal wax loolu bu sàccee élection dëkk bi day takk jàppeet loolu loolu lañ ciy ragal wax mais dëkk bi takk mais moo gën ngeen nekk ay jaam dëkk bi tàkk mais yéen yéen gars yi yéen yéen yéen yéen yéen doo leen toog affaire bi metti leen Marème di solu ba rafet di tamaambulu ay pikin gars yi di ko wër muy may xaalis wala ñuy def ay seen olala loolu mettiwu leen yéen mettiwu leen ndey yi mettiwu leen Marème Faye di am na droit di doxantu yéen mais mais yéen bu doon France farine lañ koy sotti jigéen la Macron gis nga mbéj lañ ko dóor gis nga Macron mbéj lañ ko dóor des fois ñu sànni leen nen des fois ñu jël fariñ sotti leen ko Marème fay Sall bu amee fit ak dëkk bi fu mu toll sa jëkkër ju bon bëgg taar réew mi di wax waxu troisième mandat nii oui nii non ngeen koy bàyyi muy tammaambalu te bu ko neexee dina toog trois mois kenn du ko gis kenn xamul faalewuñu suñu ndey ñoom lu ñuy dund faalewuñu duñu seetaan seetaan ñu Pape seetaanuñu Ahmed Aïdara topp toowuñu ñoom seen milliards la yor yor seen badaxal mbadaa bëgg mu continuer te jàpp nañu seen bopp ñoom jàpp nañ ne dañ fiy toog <clears throat> wax jee bari rek wax jee bëri rek ñoom jàpp nañ ne dañ fiy toog kan laa dégg mu naan kan laa dégg mu naan bu ñu reyoon Sonko Sénégalais deux semaines rek la ñuy xeex après mu jeex bàyyi leen seen wax yooyu bàyyi leen seen wax yooyu Sonko kenn du ko rey Sonko kenn du ko Je Macky Sall waxuma len ko fi y' a même pas deux jours khalif lay légui chaque jour ma suis. chaque jour ma yeey leen essayé na 14 morts yi mu essayé le 10 novembre ak Barthélemy ak Sonko mu plan C plan milliards tassara ko ci milliards 46 milliards.

ba kii Blinken bind naa ko tey ma ne ko Macky Sall yéen a ko invité le 9 le 10 Biden mi ko invité ci benn sommet virtuel pour ñu wax ci corruption Afrique mais ma ne ko waxal Biden waru ko invité parce que Macky Sall mooy the worst mooy le pire Macky Sall mooy pire pire. Euh, régime corrompu de l'Afrique tey rek bindaat naa ko tey tey tey bind naa leen envoyé naa leen email envoyé ko ambassade ba envoyé ko euh, secrétaire d'état seen seen kii envoyé naa leen lettre bi ma leen njëkkoon bind xaw ma kañ laa ko bindoon le le onze la xaw ma non le le vingt xaw ma laa ko bindoon le vingt le vingt laa ko envoyé lettre lettre boobu dam ko bind moom laa ko envoyé mais ci suuf dama ciy def PS post scriptum post Sall Biden est invité au sommet anti-corruption en Afrique. Mais, mais Macky son régime, c'est le régime le plus corrompu. Je à titre d'exemple, nous avons dit que élection, nous avons plus de 20 millions de dollars. Moi, 40, 40 milliards. 20 millions de dollars. Je ne sais pas si 20 millions de dollars. Mais je a sais Du coup, distribuer. Du coup, distribuer à la familles. Biden comprendre corrompu Amérique duñ parce que Amérique dafa loi finance des partis dafa am loi yo xamné parti bu nek dafa am xaliss dafa am les ñu utiliser ci élection ñu ko utiliser mais dëkk les xamné les leen def nga nangu ko Sonko <clears throat> comme yeen à l'offensive man li tax ma yërëm ñu li tax ma yërëm ñu mooy dañu am opposition boo xam ne du songo opposition boo xam ne du songo te buñ ko songee day défendre rek ndeysaan déggoo ba de opposition boo xam ne du song ñoom sax dañ koy wax ñun du ñu violent ñun du ñu non violent chaque jour ñoom ñoo ñuy attaqué la preuve Doudou Ka attaqué leen benn yoon dara xewul deuxième fois Doudou que attaquer leen dara xewul ay way bu doon yenn deuk Afrique yi xool leen li xaw fële temps yi la xaw amna ben deuk bo dëkk da ngay jek jek rek dégg ben affaire ne boum ñun encourager wuñu attentat politique attentat de uganda la defena da ngay jek jek dégg ay attentat di am ñun encourager parce que opposition fofu dañuy attaquer mais ñun duñu attaquer attaqué mukk mu ñuy toog rek dudu Ka ñëw sanguñu ñu togaat dudu Ka songaat ñu aéroport nous sommes Gaston Mbengue gens qui Nous Nous ah invité Nous euh, nous le 8 mars dañuy fayu rek yow dañu attaqué nit ki la rey rey l'islam wax la constitution self défense xam auto auto défense comme légitime défense mais le 8 mars dañ y a nga dem ba combat Mais mais faut finir il ko non non Arrêtez. le 10 novembre ñu song la doo profiter nga la VDM nga VDM mu daw nga ko tu mu il erreur yi mu def dem di 6000 policiers jël ay commissariat fu ce mu ko fay def mais c'est pas possible. <laughs>

ci ci tiktok <coughs> tiktok bi la setan gis ben muus bu ndaw gis junxóob junxóob bi nek ci souf muus bi ñew xam nga muus bu ndaw la amul experience mu ñew di fo di ko di ko lakkal lan ko ni di ko laal waaye ba ko junxóob bi nek kat japp ci tank bi rek na duma bay bi di tepp di dal di wëndeelu di supp jallol di tepp di dal xam nga dootu ko defat bobu bu paré fofu doo bu gisee junqoom dootu ko sax jege ñun nag ñun nag Macky Sall def ñuy woo ci ay foo combat di ñu perdloo suñu temps di la yóbbu ay tribunal nga jël ay dizaine de millions di ko fay Cheikh si Ba di def ay appel mais millions yooyu xajoon na ci sa campagne électorale ngay fay Cheikh Khoureyssi Ba di yéeg di wàcc muy def ay appel cour suprême cour suprême non ma ko léegi maa ngi nii dem ci beneen cour bi suba suba nga dégg ñu ne way way jox nañu victoire beneen yoon mu defaat chaque jour il faut en finir il faut en finir lan a mon le courage Nous ne Macky Légui, autre trahison nga def Sonko mi ngi nous. Sonko Nous la jëm Sonko la pétition haute trahison ne ñëpp signé wax ma la nous. internet si vous avez le lien bi partager Je ko man ma bind sama avez signé yéen sénégalais yi autre ko yow li def haute trahison la constitution dafa ne boo fait haute trahison dañ la wara vous dañ ko wara vous dafa haute trahison vous ngeen di am fit ngeen jël élection yi un tege ko vous..! ma élection du am te booy xool wax na dëgg Ababacar Wade nee na élection du am ndax ba léegi juge yi waxaguñu Matam ba léegi juge yi waxaguñu Kédougou comprendre nga fichier bi gisaguñ ko kon élection nan lay amee nan la élection di amee moo tax nag ñoom Sonko il faut que seen communication ak activiste yëpp daf leen di dabaax daf leen di Mister Shake daf leen di kayis foofu même Ousmane Tounkara temps yi dafa dafa teggi tànkam ay Fatoumata fu Tampi la tegal diñu tegal ay Aïssatou job Fall mu nek fa di xas Macky Tounkara sax légui daf radicalatul mën nañ ko comprendre parce que xeyna day bañ wax wax bo upp ñu jàpp ko man citoyen américain la awma ma lu may ragal first amendment suñu droit moo ñu ko jox constitution liberté d'expression américain daf ko gëm te man waxuma ray leen makki waxuma tal leen kenn xam man lan la wax. américains yi ñoo yor doole ji te américains yi démocratie rek lañu ñu gëm américain bugguñu sàcc américain buggul kuy jalgati démocratie au moins bugguñu ko comprendre nga yi xam nañ ne Macky Sall dafa bëgg def troisième mandat ñu ne ko doo ko fi defee Macky Sall nag li mu bëgg mooy balaa muy dem mu fexe ba ay maire APR rek nekk fi Macky Sall xam na la bëgg balaa muy dem mu fexe ba ay député APR rek nek fi Macky Sall xam nga lan la bëgg bala muy dem mu jël Abdoulaye Daouda Diallo mu def ko mu nek suñu président président wala mu def Amadou Ba mu nek suñu président loolu la bëgg bu Amadou Ba defee 5 ans abal ko mom mu ñëwaat amna na nu muy demee sax mu ñëwaat comme li président Mauritanie bu bëggoon def mais loolu képp ku ko def Afrique da ngay daan loolu Poutine rek moko def mu réussir parce que Poutine dafa dafa bàyyi bay premier ministre mu dugg premier ministre def mandat bobu jeex mom mu ñëwaat parce que Poutine dafa yor armée bi yor KGB mais Afrique ku ko fiy jéem def ana tay ana tay président Mauritanie Abdallah ana président Abdallah nekul prison loolu jaxalu len loolu jaaxalu len yow président nekkon nga président Mauritanie am ay milliards boo pare doo dem Dubaï loolu yaaxalu leen président Mauritanie mi ngi ci kaso bi président Abdallah mu ngi ci kaso bi premier ministre mooy président léegi dafa naa premier ministre am la mooy président bëggu nguur li ñu waxante woon defu ko mu jël ko nekk ko ràpp ci kaso bi am na muy demee ñu rey ko Macky Sall dem na fa temps yi xëy da ko doon jéem a da doon jéem a négocier loolu jaaxalu leen nguur moo neex ñoom faale wuñu milliard ndax président Abdallah bu doon nit nekk nga président deux ans xaw ma quatre ans xaw ma cinq ñaari yoon mais bu doon nit day jël xaalisam dem Dubaay ut benn château du dund lu ko neex mais gis nga boo tàmmee commandé nit ak def lu ñaaw nguur bi moo leen neex Macky Sall mais Abdallah sax mo tane Macky ndax Abdallah lu bon bon sax joxe na ne xaaral ma ñëwaat gis nga Macky Sall nguur gi loolu lolo jaral gis nga Mariam nguur gi loolu lako jaral bo leen yaakaare ne dañuy dañuy ñëw rek dem ñi da nga leen di fekk ba diri leen barki rasool laay badolo yi ma gis ñaari baadoolo yi pale ba lañ leen di fekk xolal japp leen fi fi lañuy japp di leen diri te xoolal booleen leen di diri Penda dañ fay nekk di xataaru xataraayu di langaamu ne du ñu génn pale ba baadoolo moo mel noonu gis nga Macky sal fii lañ koy jàpp xala kol kol xala kal xam nga yéen policier bu ñu jàpp fii la ñuy jàpp kol ne la da ngeen di génn suñu pale di leen diri te xoolal di leen yor par fisale di leen yor ay yat di leen dóor mais du tax bu ñuy dem bu ñu demee ba romb gis benn poto dañuy langaamu ci poto bi ne dee ñu dem nguur mo mo moo mel loolu barke Rasulaay foofu fofu ñuy mujj ak ñom ñaan ñi ma gis ñi ma gis ñi ma gis fofu la ñuy ak ñom c'est-à-dire lem lem mo bari, lem lem mo bari. xam nga man bëggatuma sax wax Lem lem parce que lem lem, mi lem lem, leem mi sax bëggatuma utiliser expression parce que momit day wax rek moom mi créé layam layami day wax rek day layam layami rek lu tax li may ñemee wax kenn ñemee ko wax ne ko ñëpp waxandoo dafa mën tëj ñëpp dafa mën tëjandoo ñëpp mais dëgg bu jotee dañ koy wax benn faal li may wax bu ko ñëpp waxoon Mor est-ce que Macky Sall day tëj ñëpp baa doole yi il faut que ñu xolal dañ leen di diri ñun yéen xamu leen nguur <laughs> saay yéen xamu leen nguur nguur nu mu neex laaj leen président Moïse. lay lay la laa non dama ne mista leem leemi bugguma sax utiliser expression man expression Pape Alé laa bëgg utiliser léegi lem lemal parce que leem leemi waxam moo bari wax moo jeex xanaa gis leen président Haïti lu nguur gi bàyyil nguur gi mu ne du ko bàyyi ñu ko fekk ci palais bi lañ ko fekk dóor ko bal 53 ans rek la amoon bal lañ ko dóor ci bopp <coughs> mu sedd jabaram ñu dóor ko bal mu rëcc jabar ji dem Miami ñu faj ko deux mois mu wér bu amoon jom mi lay toog ci immeuble am yooyu <coughs> mais xoola xaalis day dem ba dootu leen saf dara yéen xamu leen nguur li ci nekk comme drogue boo iñaanee nag laa ilaaha illallaah doo ko mës a bàyyi te Macky Sall xol bu ñuul la yor xol leen ko kanam gi foo ku fekk mu ngi mer xol leen kanam gi lu tax la ma tax ñu tuddee ko mister ñàngal ah dañ leen di diri génne leen pale ba barki rasool lay bu ñu paree ci ñoom ñu jël waa APR dëmm xaraam yi dëkk bi dañ koy raxas ba mu set wit buñ ko deful deux mille vingt deux bii man bàyyi naa barki rasool lay bàyyi naa jël leen seen màggal Tuuba jël leen seen seen seen seen seen seen seen seen climat bu neex bi jël leen jël leen seen seen seen seen eh, limaamu yeena xam jël len sen bay ñass serigne yi sax dañuy nasaxal sen xel nan la legi xale yi waxatu ñu dem ci ci géej gi legi xale yi projet lañ wax projet Macky Sall ban projet serigne Mahi ñass war nañ wax lool avec tout le respect qu'on lui doit mom mo fi gennon di wax ne da ngeen di wara xex Macron sax ci bopam neena da ngeen wara xex manan serigne bi serigne intellectuel la pay dañuy tàngal pour Macky Sall woo barke Rasuul laay gars yi léegi dañoo xam technique bi de muy activiste yi muy muy muy sëriñ dañoo xam technique bi technique bi xam mooy lan génnal ci rajo bi yuuxu Macky Sall jaam la Macky Sall lii la ah ñoom Sonko yéen a nekk ci dëgg opposition yéen a nekk ci dëgg makron sax nee na Macron pas maa ñees moo xool Macron sax nee na da war a xeex deux semaines après mu naan ñu mu dem di recevoir Macky Sall Macky Sall di ko recevoir palais <coughs> parce que ñom ci nguur gi lañ bok li ton di wax la mafia ma politico maraboutique xam nga ah, ton des fois day eppal na bayyi marab na bayyi Seigne Touba rek maag moom dinañ juboo ton na bayyi Seigne Touba bu mi disrespect rek même Seigne Mountakha sax warul leen disrespect na wax limi wax wax en général soxlawul ngay tudd di wax yaa def lii yaa def lii am naa lii am naa laa ñoom ñëpp ci système bi lañ bokk di dawal seen i oto yu rafet di sol seen gestionnaire yu baax am ay ay ay kër yu rafet politiciens yi koo ci gis ah mi ngi ak jabaram ba pare di doxal ci suñu xale yi ministres yi di biiral mi Sénégal ay dëmm lañu may wax Mansour Faye di di di di ñu jéem a tuur la deux heures du matin mu jël otom ndànk dem ci circulation bi ndeysaan nee day xool lan la transporteurs yi di jooy tey ana transporteurs yi nekkuñ fi di grève Mansour Faye gars yi meele ma meele ma ma chargé sama sama sama batterie parce que tey sama yaram dafa tàng pareguma si ñi de sama yaram dafa tàng luy jot dafa jot may leen ma ma chargé sama batterie

woo di woo ministre de l'intérieur pour dàq policiers yooyu xam naa ndeysaan après mu woo ndeysaan Mansour Faye goro Macky bi mu woo mu woo euh, Antoine Diome Antoine Diome ba sonn mënu ko jot après moom ci boppam dégg naa moo dem ci moom ci boppa moo dem commissariat ba après ñu mise à pied yëpp dañ leen mise à pied

mais Sénégal kañ ngeen di yow ah kañ ngeen di yow c'est révoltant man aw ma jot man faalewu ma àdduna man yàlla laa gëm billahi wallahi taalahi li may wax ni su ma koy wax ñu bëri dañu damaa damaa mer parce que aw ma ci kër yu baax yi wala aw ma ci oto yi comprendre nga wala damaa iñaane ñoom Macky Sall billahi wallahi taalahi aw ma jot man yàlla laa gëm man sama àdduna dama kaa réussir ba pare dara foqul sama bët yàlla suturaal na ma 97 laa dugg Amérique yore samay million ba léegi sama famille yor naa leen 20 ans man amatuma lu may namm Sénégal barki rasool laay mais baa doola laa mënul supporter man du question dama leen iñaane de man su ma leen doon iñaane dama naan nañu nangu seen kër yi ñoom ñëpp man iñaane wu ma leen même Farba Ngom mais am na nu muy demee sax mën nañ ko bàyyi ak vingt vingt sept gàllam mais xam nga lan laa mënul supporter baadoola parce que baadoola xamul yeelaa Sonko wax na ko baadoola kenn du ko jox ñëwaat du ci wàcc mukk Macky Sall Marème Faye sal Aliou Sall Amadou Sall ce sont des baadoola de la pire espèce du ñu ay gor parce que du ngeen ay gor yéen tekkiwu leen dara xool leen seen dëmb. xanaa gis nañ photo Macky Sall yi bu ñu ko wanee université nu mu ñaawee nu mu sewee Marème fay Sall xanaa gisuleen yeen photo ñoom ay sénégalais la ñu woon dégg naa sax def nañu moodu moodu fii Amérique kon ñoom li ni li moodu moodu yi dund xam nañ ko li sénégalais yi di dund xam nañ ko yàlla def ñun ñoo leen jël yéen tubaab yi teguñu leen fi ñoom Senghor mën nañ ne tubaab yi ñoo leen fi teg ñun ñoo leen jël yëkkati leen xeexal leen Macky Sall jël cent cinquante mille fay jox ko Amadou la ko dama jënd essence 2011 tal Pikine après ngeen dem ci Sall Ndiogu ngeen seetaan lool Amadou Diallo moko wax wa ana Ousmane tonkara mom bu jige di tek di tek rek di tek ay Aïssatou Diop lool dang ko wara tek teg sa émission Ousmane Ousmane tonkara Amadou Diallo APR 100 mom cent sax max dafa wara a def troisième mandat mom nee na dafa wara a def troisième mandat mais nee na Sall daf len trahir ñom ñep ñom ñep ñom ñep ñom nak bala ñu mëna wax rek. ñu gis Macky Sall recevoir Fatoumata Fouta Tampi jox ko million wala mu recevoir ana Adama Fall dëggati ngeen mu wax boo demee woo nañ ko jox xaalis jox ko xaalis moo tax noppi na Adama Fall du ma moo doon kaas parce que Fatoumata Fouta Tampi dañ ko jox xaalis Adama Fall bu egsi dëggati ngeen ko parce que woo nañ ko jox ko xaalis pour mu noppi saa waay tamit am na nu muy demee ñu woo ko léegi jox xaalis mais Ousmane Tounkara na génne loolu mu teg ko man démb ba mu ko dégg <laughs> day jëkk la ndax boy non man billahi wallahi taalahi loolu ba mu ko déggee Amadou Diallo mu ne billahi wallahi taalahi ba mu ko déggee gëmuma ko damaa reculer wat damaa reculer waat film bi parce que daf ko wax Sanjoogu wax ci dara amadu jàll dafa toog ak Sanjoogu ak waa plateau boobu ci émission boobu Amadou Diallo mune te dafa joxe date exacte le 21 juin 2011 bobu Macky Sall opposition la mi nga bëgg dégager Abdoulaye Wade mune le Amadou Diallo moko wax militant APR 100 mune Macky Sall dafa pour yónnee ñu 150 000 pour ñu jënd essence tal Pikine tal Pikine kenn ñëméwul jël xaalis bi. man maa ko jël ba pare mu wax continuer di wax saa njoogu arrêté wu ko laaj ko keneen arrêté wu ko laaj ko ma ne waa man li ma dégg maa ko dégg wala dégguma xëy na waa ji wax loolu ma ma avancé ma ma reculé waat affaire bi film ma reculé ko waa ji wax ko ma ne non mais lii lii lan moo tax saa njoogu arrêté ko mais heureusement saa xam saa saa xëy na affaire bi da kaa parce que ça bayina ko mu développé wat 2 minutes 3 minutes après ça ne ko yow li nga wax léegi dafa garaaw de yow nga ne Macky Sall mo la jox 150000 nga jënd essence tal piki mu ma waw mais lolu lutax sénégalais yi Gaston meng wax damay tal jazz mu def buzz wa APR mu ne Macky Sall moma jox 150000 pour ma jënd essence tal Pikine ken waxu ci man Mister Shake ma ci wax te xolal am na lu muy kenn du ci wax mais Tounkara bu jógee di tu ay vidéo mais na tek fait dafa ki gis vidéo bi expert Pablo man maa monsieur Shake man yoy duma ko bàyyi yu mel <laughs> ko de chaque jour dina ko wax Macky Sall jëppeet bi ñuy bañ loolu la def 2011 2011 dafa tal Pikine jeppet parce que dafa bigone Jule Macky ba mu ku taal Sénégal jëppeet du ñu wax ay waxu jàmm Sénégal dañ koy taal ba mu takk jëppeet boo leen sàccee élection yi parce que noonu nga def Macky Sall noonu nga def ba jël nguur gi te booy APR moo ko wax damay ragal sax ñu jàpp ko dinañ ko dàq kudd moom ndax moom ñoom dañ ko utal liggéey kudd léegi ngeen dégg ñu ne dàq nañ ko billaay barki rasool laay ñoom kay soof nañ ci wax li may wax nii buñ ko dégguloon parce que man dama am chance jot si ah kii tam nee na dégg na ko Rokhaya Faye man damaa am chance xaw ma la moo ma def parce que man démb dama toog gisuma dara mais xam nga man man lii mooy sama liggéey man seetaanu mu film américain seetaanu mu film euh, euh, dara man sama liggéey lii la Sénégal mooy sama liggéey billahi wallahi taala su ma yeewoo def samay vidéo def live su ma paree su may ñibbi des fois ma daw entraîner su ma demee def defar sama reer et cetera nek nak ci ci internet bi di xol lan la site bi wax lan la site balé wax Seneweb laay xool Senego bien que des fois ñu ñu def ay titres yu bon mais ñaar site yoy lay gëna xol parce que léral seen site baxatul Cheikh yirim site am baaxul dafa bëri ay virus Dakar Buzz baxon na mais dañu jik jik changer ko dara baxatu fa man ñaar site yoy lay xol Seneweb Senego su ma gisee lu ma war intéressé ma jël ay note mais Demba amuloon ben information Tunkara la seetaan live mu jeex ma live Je suis en ma de Akhenaton mu live, Je len en may ma commencé live, di suis en ne rek gis Sanjoogu je suis en ma Je Sanjoogu dafa bind je suis APR mi Macky xam mais ma daf ma jox daf ñoo pour jox ñu essence c'est un bandit waa APR moo ko wax mu ne nag dañoo nar a yàq Sénégal Farba Ngom ñoom ñoom waa yee wax de Amadou waa ji Amadou Diallo la tudd xoolal kooku ko kay ku gën a nekk am APR amul Macky papam Amadou la tudd Macky doomam Amadou la tudd Diallo mais Diallo kay tukkuleer la Amadou Diallo nee na Macky Sall dafa yàq réew mi nee na ay faucons ñoo nekk pale dañ kaa sëriñtu xamul te lu xew dañ ka serigne touba xamatu lu xew wa affaire yi dañ leen sacrifier ñom ñep dañ leen sacrifier ñep mer ñom ñep duñu votel Macky Sall mais terawul Macky nar na dina sacc ba gagne election yi saga na wa Farba neena Farba daf ko saga won mu fayu mu ne Farga mu ne transhumant yep ay tiaga lañu ba waa ji sax du xuloog mom japp ko di xuloog mom mais yéen Sénégal yi do leen ñu dimbali yeen ngeen ñu am invité mu defal leen émission bu neex jox leen ay révélation nga dekk fa di ko xas naan ko nit ki da nga réew ni ngay waxee baaxul waaye dóol dóol naan ko da ngaa amul xaalis moo tax mu ne ko man 2011 ba léegi ñu ngi fi di muñ ñu ngi fi ñu buñ di lu ne ñu koy defal Macky Sall di ko xeexal Macky Sall ñëpp la trahir wax naa leen ko Haalpulaar yi sax da leen trahir kii Diallo la tudd Amadou Diallo dul maji gis ngeen Macky Sall dem amna sama way mu ma bind mu ne ma Mister Cheikh bàyyil nduulu maji bi ngay xas man nduulu maji la dekk ñun ñun bëgguñu Macky waa waa ji di ci plateau bi ak jigen ndaw ci jigen nan ko bàyyil geewal yi ngay xas ni ah yow li ngay wax ni ak Farba ak ak Gaston limi wax ben la c'est pas vrai waaw geewal la wax senegal bo xasse geewal xassulo geewal yi ñi ñi wax geewal moy Farba Ngom buñ koy xas question li mu nekk géwël mais jikko ñaan jikko sàcc boobu la waa ji wax ñu koy xas mu ñëw defal leen émission génn leen ay révélation yu garaaw révélation yooyu boo leen aayoon Sanjogu bu ayoon day dagg loolu loolu rek da koy dagg lu naw loolu deux minutes section deux minutes yooyu lay dagg rek dugal ko ne déglu leen li Macky Sall def mais ñoom dañoo ragal Macky Macky moo jël cent cinquante mille jox ko waa APR ne leen dem leen jënd essence ngeen taal Amadou Diallo moo ko wax kooku mooy suñu président ba pare bu ñu toogee ñuy wax jàmm jàmm jàmm ku ma bu ma déggee nit wax jàmm dama lay bëgg xoj ba nga dee jàmm moo boobu su ma ko déggee su ma déggee nit ku wax jàmm ñii ay baadoolo la dañ leen di débarrassé xanaa déggu leen Sonko li muy wax sànq jaay nañu suuf si jaay géej gi jën si pétrole zikron, Sénégal buñ fi togaté de mais mais moo tax man Sonko bamu waxé motax Sonko bamu waxé dañu gunge Macky Sall mais nak il faut me comprendre Sonko il faut ñu comprendre foog ñu comprendre parce que saawaay le 8 mars yombul won yombul Sonko bu ko neexoon Sénégal changé ba fa waaye yombul parce que tamit. nga toog ñu fekk la sa kër dóor la bal fital nga dee saay loolu neexul bu doon yow kese ding ko def bu doon Sonko rek di nga ko def mais boo amee jabaru xale bu mel ne Anna Diamanka nga am ay doom mu leer na la bu ñu attaqué sa kër dañ lay rey mën nañu reyaale ñoom Anna bu newoon bu waxuloon Macky dina daanu gaa mais mën nañ ko reyaale Sonko kon il faut ñu comprendre Sonko côté boobu mais du question armée beeg yooyu moo tax déedéet Sonko dafa tok mu xoolaat ne mu xoolaat ne déjà mom mom deram dafa yakku ci ne nitu fitna la lolou la ñepp wax bu ko neexon Macky daanu yenen 100 boy dee mom mu deewaale ñu reyale Birame Souleye wala ñu japp non la naroon démé parce que coup d'état mom Macky Sall iñaan bi mu iñaan ak France jour boobu lu né mënoon na xaw

reyaale Macky Macky sax am muy démé De am sax kenn du ko de forcing bi Sonko mais lolu passé na lolu passé na légui Sonko wané né est du nitu fitna wané né du nitu fitna légui légui buñ ci dématé bu buñ ci bu il faut que ñu nangu ne ñaari yëf moo des dañuy nangu defanteeg ñoom ba mu saf sàpp ku war a dee dee waaw na jël ay njabootam mu yóbbu leen fu mu leen war a yóbbu ana jamanka sa doom yi ndaw yóbbu leen foo leen war a yóbbu nga làq leen sa yaay Casamance yóbbu foofu la ñu toll ñu defanteeg ñoom ba mu saf sàpp parce que tamit duñ fi nekk ñu jël xaalis bi di ci def lu leen neex billaay barke Rasulullah mais yéen yàq bi yàq bi am bi Macky Sall def ak Marème Faye Sall bi mu def dafa ëpp yàq bi moo ëpp 46 milliards nga ñëw rek génn ko nii 46 milliards mu jógee dox dëkk bi amul xaalis dëkk bi amul liggéey nga ñëw rek génn 100 milliards pour lan pour sàcc élection bu ñu toogee ñoom Ndour ku nekk toog fi nga toog di xaar. cest yen, ay boy ngeen cest yen yen, xamul len aduna leen <laughs> nu muy fonctionner xamul leen ay ne Aïssatou Diop Fall day xey rek commencé wax ni ay Diop Fall da nga yakane day genn ni rek commencé dal Macky Sall comme ni mu dalé Macky Sall nii ci jibril Ngom ay Diop Fall sa yu waxe dañ ko wax lo du yep nak mais bu démb bi ni ni mu attaquer Macky Sall Chérif Dia ataayu ko attaqué ko arrêté wu ko kii Dieng arrêté wu ko Dieng sax daanu ko arrêté Aïssatou Diop Fall bu daan wax Chérif Dia moo fay nekk di jéem a arrêté di ko wax noo lii Macky Sall lii mais bii baa Chérif Dia da ko doon jàppale ci wax ji Aïssatou Diop Fall Youssou Ndour bu ko neexee waxloo ko kii waxloo ko Bouba Ndour parce que TFM tamit il faut que ñuy wane ne. ñoom des fois dañuy wax deug comme ça Macky Sall lu bëgg am ci Macky Sall am ko wala aussi bu dëkk bi naree tak kenn du tal téléphone parce que buñu ñu naree taal téléphone dañu ne ah pourtant Aty Diop Fall nee na lii de Tunkara tombé na ci piège boobu jël li Aïssatou Diop Fall teg di ko wane mais Tunkara mi ngi avertir gaay yi attention tàccuwuma moko parce que liggéeyam la def Tunkara Aïssatou Diop Fall jarul wane parce que tay day wax deug suba. gars yi mën nañu ko activer mu dalaat Sonko yéen li xaw ci dëkk bi xamu leen ko xamuleen leen gouvernement nu muy fonctionner xamu leen mafia nu muy fonctionner nga yaakaar ne Aïssatou Diop Fall am na fit chaque jour rek ñu bàyyi ko muy wax lu ko neex mel ne expert la expert la ah li muy wax ñëpp ko ñeme wax mais pourquoi ñu koy bàyyi muy wax dañ koy activité activé saa yu leen neexee ñu activité te Youssou Ndour bu leen fàtte ñoom dañu nekk conférence ak ñoom Mamadou Ibra Kane té ñom Youssou Ndour gis nañu Macky Sall ni muy farale ñom Mamadou Ibra ak Didier Boubs président yi bu ñew ñom ñoo leen di interviewé gis nga gis nga ki bi Blinken ba mu ñewé TFM inter man gis gisuma interview TFM ITV la gis gis nañu tamit yenn nouvelle yi Ibra mo koy mo koy ñëk xam Ibra mo ñu wax né Macky Sall bu bu indé premier ministre bi premier ministre bi dafa dara xëc ay euh, euh ki ay waaw euh, euh, euh, yeewu askan mara buy yi dañuy wax ak activistes dañuy wax ak ñoom Aïda Mbodj di ay Aïda Mbodj temps la génn wax ko ñëpp a may woo marabu yëpp a may woo di ma wax jàmm di ma wax lii mais fi mu nekk nii jeex na Aïda Mbodj wax ko fi waxuma leen fi woon ma ne la Aïda Mbodj mii attention ci moom la ñuy jaar ba ma gisee sëñ Bass Abdou Khadre dem di ko jaale trois mois quatre mois après ci laa ne <laughs> attention ñuy suxlu ci suuf moo bëri sëriñ yi dañuy suxlu xalif généraux yi di suxlu homme d'affaires yi di suxlu imam yi di suxlu Youssou Ndour di utiliser ay journalisme ñoom Bouba Ndour di leen waxloo lii Fou Malade dañ koy waxloo Charles Faye dañ leen di waxloo ñoom ñëpp dañ leen di waxloo loo foog mais seen teraanga seen teraanga foofu la ne Ousmane Sonko ne xam na lépp lépp xam na ko moo leen jaaxal billaay barke rasool laay mais Sénégal fi mu toll nii saay man yàlla daf ma may des fois dama mel ne damay santir parce que ba ma commencé di def sama live dara xewul dëgg la wala dëgg tey de war na mat deux mois ndax fin septembre waaw ah, fin septembre laa commencé live septembre octobre novembre def naa deux mois amul benn jour lu ma tëb ba may commencé sama live lan laa leen wax. boobu dara xewul ma ne leen gars yi am na luy waaj am Sénégal je sens que dëkk bi am na luy waaj am te gis nga le 10 mars bi le 10 novembre bi dëkk bi mënoon na takk gis nga instant yi préf sous préfet yi jëfru gis ngeen Djibril Ngom jëfru gis ngeen Fatoumata Fu Tampi non Fatoumata Fu Tampi sax def naa avant la woon parce que dëkk dafa am foo xam ne bu fa toll da ngay sentir gis nga Doudou Ka aussi ba may wax boobu xaw ma sax ne Doudou Ka day am xool leen deux mois yi mu commencé live li fi jot am yëpp te gisagu leen dara loolu mooy danger bi ci tournant la ñu nekk gisagu leen dara Sénégal sama jabar dama koy woo mu may wax ay waxu ñàkk fayda ma xool sama bopp ma yëngal sama bopp ma ne ko yow Sénégal yi nga waaj a takk nga nekk fi di ma wax ay est-ce que setan nga pour sen petit galé xalé bi de lii la way lii la way mën ko yaatal sen petit galé sen dëkk bi di waaj tak jappet son ko mën nañ ko ray Macky Sall mën na sacc élection parce que Macky il est imprévisible il est dangereux Marème Faye il est dangereux Macky Sall est dangereux parce que nelawatul ñu bari duñu ñu 2024 bi mel billaay barka rasool il est dangereux parce que nelawatul mi ngi xol lan la wara def ba tok fi ray Sonko ci plan bi la Pape Alenya waxnako réunion nañ ko ray Sonko ci plan bi la Sonko parce que Rasoul Sénégal Sonko pharaon la pharaon. pharaon bu njëkk ba pharaon bu njëkk ba bu deewee ñu ñu ñu ko daan servir yëpp ak jabar yi mu amoon te jotul tëdd ak ñoom amoon jotul ak ñoom doom ñëpp la ñuy suul dañ leen di suul vivant ñu ñu dem gunge ko waa APR dañoo respecté Sonko Sonko soxlawul blindé waxoon naa leen ko soxlawul gilet pare-balle waxoon naa leen ko Tunkara nekk bi di tëb di dal trois jours ma ne ko saay yemal après ñoom Sonko ñoo ko woo ne ko soxlawul bàyyil yooyu waxoon naa leen ko soxlawul blindé soxlawul gilet par balle Sonko dee na mooy Macky Sall dee na Sonko dee na mooy Marème Faye Sall dee na Sonko dee na mooy Amadou Sall dee na Sonko dee na mooy Aliou Sall dee na Mansour Faye dee na Timbo dee na am Adama Faye boo amul Sall sax boo dowul yow tam am na mu am na nu muy demee sax ñu reyaale la parce que dañaa askan bi askan bi foog ñu détruire leen. Sonko dee na ma waa APR foofu foofu ko APR foofu ko APR waa APR yëpp dee nañu Sénégal day takk jëppeet ana ambulance yi ah waroon ambulance yi waroon nañu ñëw instant yi billaay barki rasool laay Sonko dee na amma yi lu ko waxee amma yi Sonko dee na Sonko dee na mooy Sénégal takk na jëppeet mën na yàqu vingt ans Casamance day takk ba dootul fay dina tak 20 ans dootul fay Macky Sall ko xam ñun nous wuñ kenn dañ leen di avertir comme ay ciune ngeen ay dëmm ngeen ay noxor ngeen légui dafa message bobu jall na parce que dañ fi une semaine yo xamne Sonko ray Sonko rek la ñëpp doon wax semaine pas passé il y a 10 jours ñëpp di gëmoon nañu Sonko day dee ray Sonko rek lañ doon dégg ray Sonko ray Sonko ray Sonko Blended. on a mais légui lu wax Qui na bor kenn waxatu parce que Macky jë bàyyi na plan boobu teg na ko fële France du ko def France du rey ko parce que bu rey Sonko nee naa la toto yëpp ay tàkk waxuma total de ana ku ma doon corrigé su ma nee toto mu ne ma kenn du wax toto station total la ñuy wax du ma mu am jot kat fekk ma sama Facebook messenger man xaw ma ko du sama ami jigéenu Sénégal li moo tax du ñu dem. fii fii toll ñuy waaj wax révolution ñu nan ma ay Cheikh Assane Diouf ñu Cheikh Assane Diouf légui ñu wax nit ki di ma bind nan ma mr Cheikh di messager le ma bind de jël jotam nak def dissertation Mr Cheikh on ne dit pas Toto parce que Toto c'est pas un adjectif on dit les stations Total parce que ñu né né na poète la amna kuma bind mu ne ma papam poète la ndaw si nak nee na bul ma bàyyil di wax bàyyil dima bind di tudd sama tour sinon dina la gennal vidéo dima menace menacer ma sa tour mu on ne dit pas Toto Brimel mu il ne faut pas dire Toto on dit les stations Total Toto la wax pour message bi gëna jall Sénégal France bo len reyee Sonko amul sax rey Sonko yeen même bo len ko reyoon Sonko bu deewee dañ naan France la Toto yeppay ay jappet Auchan yëpp ay takk jëppeet ambassade France di ngeen daw génn Sénégal france yëpp di ngeen roc bagage daw xam nga dama ni gis nga France du ñu rey Sonko Macky Sall bu ray bu ray Sonko wa APR ñom Abdou Mbow gisoo légui nu ñu ragalee Gaston Mbengue sax dafa ragal Sonko buy attaquer nan way Sonko dama am admiration ci mom Sonko n'est pas dangereux Khalifa Sall moo gën a dangereux dañoo respecté Sonko ñoom xam nañ Sonko xam nañ kan mooy Sonko wuyu xam na ne bandi bandi mooy bàyyam moo tax Macky Sall bàyyi na plan boobu léegi xam ba man plan la jël ça ne peut pas am parce que ay dëmm moom dëmm rek la mën doon ku iñaan ku soxor ak dëmm dëmm la mën a doon ñun waxuñ li ne mën na am mais plan boobu bàyyi nañ ko léegi plan bi ñuy jël mooy jël nday xaalisu réew mi yëpp di ko tuur baadoole yi ñu xam ne dañoo neex a jënd pour day sàcc élection yi loolu mooy seen plan waxoon naa leen ko 46 milliards en 8 milliards Marème Faye Sall dégg naa mu ngi Pikine xaw ma loolu mooy seen plan plan boobu bu jeexee bu jàllul ñu jël beneen plan A ba Z parce que lay Macky Sall mooy baadoola plan A ba Z mooy sàcc nday élection yi comme sénégalais yéen da ngeen tappet ñuy dem rek xam nga lan moo tax ñuy bàyyi ngeen génn ne da ngeen ñuy jëlee pale ba boo leen waxee loolu dinañ dellu ginnaaw parce que dinañ desewaat yeneen deux ans ci deux ans yi dinañ dellu ginnaaw ñu jéem a xool comme comme gagné nañu comme sàcc nga comme gagné nañu euh, mairie yi dañuy dellu ginnaaw bu ñu delloo bu ginnaaw ba ñëpp calmé waat ñu jéem a xool ndax dinañ sàcc législative bi boo leen yëngalaatee ñu delluwaat ginnaaw nee nañu eggale suñu mandat dinañ desewaat deux ans ba léegi un an et demi ñu jéem a xool ndax Macky dina mën a euh, nekk bu mënul nekk ñu ne xaaruñ jël Amadou Ba wala Abdoulaye da day essayé di essayé di essayé barki Rasool la ak dëgër bopp non nit ku dëgëree bopp Macky Sall ak Marème fay Sall nit ku baadooloo dëgër bopp di xëccoog sa askan di xëccoog say nit nit yu ñuul comme yow yow nga ne jullit nga ngay xëccoog ñoom di jël réew mi di ko jaay France di ko jaay tubaab ñun dañuy toog di dégg ay zircon xamuñu sax zircon nu mel. Clédor moo ñu naan dafa ñuul ak dafa weex ak loolu ooru sabadoolaa yi dañ koy dégg musuñu ko gis palais de la république musuñu sax gis néeg bu rafet avion suñu avion xamuñu sax nu mu mel ñu ñuy tuur lëndëm dëgër bopp di ñu corrompre parce que nee nañ sénégalais baadoola dafa xiif boo ko mayee quatre-vingt mille rek mu fàtte lépp bu ñu demee ba lépp baaxul ñu dem ci sëñ Muntaxa génn mali di teg In ay Pajero rangé teg bàyyi ko fa du ñu bàyyi dañuy continuer di ci dem di ci dem di ci dem il faut que ñu you. leen par le col we gotta get them by the collar and we gotta drag them we gotta drag them out of the palace on doit les prendre par le par le col Mariam Faye Sall Macky Sall jàpp leen bif leen ñu wadd ñu leen di diri comme kuy fobeere

barke rasul lay <laughs> saa yéen yéen xamu leen ne <laughs> baadoo la maanaam Faye Sall dee danaan du génn talib talib xoolal musóor bi dina daanu musóor bi dina daanu veeram yi daanu maquillage am yàqu waaye dee du génn pale bi barke rasul lay comme Moïse il nga dóor leen bal ci bopp wala nga dóor leen non barke rasul lay ñii ñoo ñii ñoo bon c'est-à-dire yéen xamul leen ñu ngi ko seqal barke Rasulullaay parce que yéen da ngeen yaakaar ne Ablaye Ablaye Wade ni mel noonu la ñëpp nga nekk fi di saaga Ablaye Wade 2012. lii moo taxoon 2012 bëgguma woon mu ñu ba ma musuma votel Macky Sall sol Rasulullaay bu ñu jógee naan monsieur Cheikh yow Macky Sall lii Macky Sall laa 2012 Laay Wade laa bëggoon mu toog Laay Wade gor la Abdou Diouf sax li mu yàq Casamance yàq Casamance ba mu toogee vingt dix neuf ans. dafa génn mu dem Senghor dem ba xam ne mënul gagné Casamance mu dem mais ñaari baadoolo yii su ma toogee dégg nit kuy dekk fi di négocier ak ñoom wala nga leen di xalamal damay damay waaru su ma toogee dégg ay Aïda Mbodj mu dem téléféral Macky xam nga téléféral Macky TFM wéy wéy sama jëkkër makki Sall moo ma ko présenté waaw waaw sama yaay ba muy gaañu moom de dafa ne Macky mooy jëkkëram yàlla na ko yàlla yërëm Aïda Mbodj avec tout le respect qu'on vous qu'on vous doit sama yaay ndeysaan Macky Macky mooy jëkkëram loolu la waxoon waaye nak bu Sonko ñewé dafa ñew rek tak Sonko gis nga sama yaay ba mu gaañoo sax auto Macky bi moko ko yobbu euh, ci armel ya waaye auto ba dafa paan gis nga yalla limi muy def oto Sonko sax moko muju. mujj Aïda Mbodj avec tout le respect qu'on vous doit sa yaay yalla na dem ci ci ci ci ci àjjana Firdawsi sa jëkkër Macky moo la ko présenter. on s'en fiche comme de l'an 40 ayda avec tout le respect qu'on vous doit affaire sentiment yi ni ñu ko jël ñu teg fële Macky Sall du nit ku baax baaxul neex set daray la parce que rasulaay bu la defaree lu baax tamit fay nga ko fay nga ko junni yoon Aïda mboot doy na bu leen tagg Macky Sall bu leen ko neexal bu leen négocier bu leen ko ñaan comme caat naan président ñaan Macky Sall ni ngi di ñaan ngeen gaaw ngeen gaaw <laughs> libéré kilifa amulatuñu lu ñuy ñaan kii suñu jaam la ñun ñun ñoo moom Sénégal dafay il travaille pour nous ñun ñoo koy fay dafa nekk baadoolo rek ndax koo xam ñu ngi lay fay 728 millions par mois xaw 738 millions muy 8 milliards caisse noire lu la neex nga def ci kooku kooku tey bu ñu ko waxoon delloo ñu suñu pale daf ñu ko war a delloo billaay barki rasool 8 milliards at bu nekk togga fi juróom-ñeenti at muy 72 milliards te Macky Sall ñëpp xam nañ dafa nay 72 milliards ku la ko fay sans compter li ngeen jël sa salaire sax bokk ci salaire xanaa war na nekk ay 10 millions 12 millions Ablaye Wade 9 millions salaire nga nga téye ko ne doo ko fay Ablaye Wade nga téye këram point e ne doo ko jox jël ay otoom téye ko jël doomam Karim Wade sànni ko fële ci xaj Qatar jël euh, euh, Khalifa Sall xaw ma 3 ans nga ko tëj xaw ma 5 ans bëgg jël Sonko tëj kilifa tëj ku wax tëj ku yuuxu tëj Mister Shake ñëpp lañuy ñuy menacé Tunkara bu wàccee sa fii dañ koy tëj jéem ko tëj fii ay dëmm lañu duñu ay gor ñu mel ni amutuloo looy négocier ak ñoom ñoom Sonko ñoo war a jël seen responsabilité chaque jour mu jox leen lu tax ngeen war ko fi jëlee ndax lu dol ne ay élection nga ne kenn du bokk Pape Alé Niang wax na ko arbitre bi neewagul priit arbitre bi neewagul prip mu commencé sàcc bi barke Rasulaay ak a am fit ak a réew Macky Sall dafa réew Marème Faye Sall réew man li ma xam seen jikko la moom ma ci gën a soof seen jikko dañ ñoo yab man loolu moom ma soof seen jikko dañ ñoo yab parce que dañu yaakaar ne ay dof lañ ñoom yaakaar nañ ne li ñu def 2012 ba 2020 mën nañu continuer di ko def jaar ci sëriñ yi jënd. jën nit ñi arrogant mais surtout iñaan eh du arrogant de excellent sénégalais dañoo iñaane Sénégal xoolal suñu dëkk bi climat bi nu mu mel macha allah xool leen géej yi nu mu rafetee mais xool leen construction sauvage yi ñu fay def nday nag wane woon na ko Pape Alé wane na ko xool leen zircon bi ñuy dégg xool leen or sabadala bi ñuy dégg xool leen xool leen pétrole bi ñuy dégg gaz bi ñuy dégg sénégalais yi nga iñaane leen pour kan pour lan au nom de quoi iñaane sénégalais bu doon sax ñun dañ leen tooj ne leen dem leen mais ñun leen rek lañ leen laaj defaral leen élection yu baax nu leen ko defar man su ma gisee kuy jéem a négocier ak Macky Sall daf may jaaxal Macky Sall bâton la xam bâton xamul carotte Marème fay Sall bâton yet ay yet lañu xam ceinture waaw Macky moom yet lañ koy utal mais Marème ceinture ñoom loolu la ñu xam da nga leen di cifaay mujj bu ñaaw lañu ñu nar a mujj la mujj xam nga ban iñaan moo gën a bon ku iñaan ba iñaane boppam mooy APR ndax ñoom xamuñu ne dañu nar a dee ñoom ñëpp c'est vrai que dinañ yóbbaale ñu bëri nag. waaye ñoom xamuñ dèjà yow bëggoon nañ quatorze sans compter ñuy dagg seen loxo ak yooyu te ba léegi bëgguñu leen sax delloo jox sax ndàmbaay xam nga ban iñaan moo gën a bon yow nga iñaan ba iñaane sa bopp yow ñëpp a gis sa dee ci palais bi waxoon naa ko fi Moïse bëgguma dégg président Moïse Haïti c'est vrai que nag moom musuma wax ak moom mais man dama daan toog di yëngal sama bopp président Haïti bàyyil bàyyil bàyyil mu bañ Gbagbo wax nañ ko bàyyil bàyyil nguur gi bàyyil nguur gi xaw ma yaa nekk ci dëgg wala nekkoo ci dëgg waaye comme dëkk bi affaire bi demee na nii président Obama ne la bàyyil bàyyil mu ne du bàyyi dix ans mu perte ko léegi xool ko màgget na kenn xamul lu muy nduróol mu naan dafa bëgg nekk président d'ici trois ans yow fii ak trois ans est-ce que doo dee Gbagbo nañ dem man maa Mister Shake lu mu leen wax ngeen gis gis ngeen Gbagbo nu mel temps yi ngi bëgg nekkaat président fii trois ans ko di ko sànni carotte ne ko waaw waaw ñëwal nga ñibbisi waaw ek mën na am di nga nekk président trois ans léegi mu dee bac bobu bu dundé ba 2025 dina ma jaxal parce que léegi mu dé nguur limi len jaral bac bo bayil nguur gi mune du bayil nguur bagn koy japp pistolet yi timélé ko ni pistolet yi Simon mom nit la Simon mom nit la mo ngi don rox oui kot kot lan motax mu divorcer Simon man maa ngi wax Simon daf ko trahir mais boy xol Simon trahiru ko sax Simon nit la parce que dafa bëggon dund Simon bobo ba mu nekk ci palais bi mi ngi kot kot di def ni bët di xol pour moi, nit la parce que pour moi, chaque instant nit mën na ko mu dee comme li ñu def Kadhafi parce que ay militaires, bu la wëree xamuloo benn élément bu bu bu ëppal mën na ñëw rek dóor la bal pour am tur comme ki rey Kadhafi Simone Gbagbo dafa tiit mais Gbagbo <laughs> instant ben instant ñu ñuy sol yére tiitul pour moi moy président ba léegi benn garde sax moko don dimbali muy sol muy sol chemise bi. may xool bii ma ni c'est-à-dire man man détails yi may xool yéen doo leen ko xool gis nga nguur boo ci nekkee baadool xool président Mauritanie mi ngi ci kaso bi fi mu nekk nii mi ngi ci kaso bi lu tax parce que dafa bëgg nekk président ba léegi Macky Sall ak Marème dee ci biir dee dee dee ci ci nguur gi la ñuy def billaay barke Rasulaay de ñoom Sonko ñoo war a jël seen responsabilité parce que ñoom dañu yaakaar ne ay nit lañ ko seqal xam nga dafa am ay nit yoo xam ne dañuy dox nga yaakaar na ay nit lañ mais gis nga nguur day changer nit iblis daf ci nekk jinne yi nekk ci franc-maçon yi nekk ci góor jigéen yi nekk dañuy dem ba sa maay dañ koy changer boo duloon naan am na nu mu demee nga commencé naan boo duloon drogue da ngay commencé drogué wu ñoom boo leen xoolee sax duñ la jox nit Aliou Sall normal na famille bi yëpp xool leen Aliou Sall xool leen ko est-ce que nit la cest à yi man damaa mën a seetlu xool leen Aliou Sall benn émotion ngay gis ci kanamam ban émotion musuñu ko gis mu ñaq musuñu ko gis mu jooy même reetaan sax c'est rare nga gis Aliou Sall فوق كيفك كان مني خلينا نسال فوق كيفك كان دفي تريست امو ايموشن نيوم دا فملني دريت داول سن سن يارم دا فملني اي روبو من سما راك سما ماك بو نيكون بريزيدان داي فرينشي ماك فوما غيس داماي هابي بو ماي جين داغا ساج مام نينكوي جين 6000 مليار دفوكو دارا علي سال بو نكوي Tout Il duñu ay nit de Vous a que ne ay ñun ay nit lañ ko seqal ñii duñu ay nit amuñu sentiment pas mënu leen étudier nit xool leen Sall surtout Il Macky Sall la mel mais surtout ci Aliou le emotionless sans émotion son visage ne trahit aucune émotion pas le plaisir pas la douleur pas la colère rien Aliou Sall a milliards mais kanam du changer du ñaq du jooy du reetaan boo ko gisee da nga koy yéene sarax Aliou Sall ak affaire affaire am boobu nekk ci bët bi nii xaw ma lan la te pourtant dem na Chine voyagé na Chine fu ne dugg na fa boo ko gisee mu sol yére olofam yooyu ak tuutiwaayam bu ngeen kii am na immeuble Dubaï da nga naan c'est pas boo demee yor na dix immeuble Iba Dubaï sëgam Farba Ngom moo am vingt cinq ga vingt sept gàlle Farba Ngom am na kër almadi bul jar un milliard trois cent millions billaay bakki a non baa doola baaxul tey sama yaram dafa tàng gaay billaay bakki rasulaay parce que man je dama damay waaj joxe sama nationalité parce que man mënu ma dëkk ak baadoola man baadoola mënu ko man joxe laa sama papa joxe rek sama papa impôt demel lu doon liggéeyee démissionné Nek courtier di jaay di jënd nit nit ñi kër di jaay nit ñi kër comme Farba bu ko neexoon mu am ay immeuble partout Sam papa nit amel amel ko terre ay mécanicien jël nañ terrain face Terre bo xam tay buñ ko doon jaay mën nañ ci am presque ay xam ay cinq millions mais daf lañ ko bayil parce que mécanicien dañu ñëw occuper ko illégalement pendant des années man bama démé demee fax suñu wa kër di wax naan dañ koy jëma a nangu mën na leen non non Sam papa am terre bàyyi 15 ans 20 ans ay mécanicien nek fa nga xëy ben jour bëgg leen génne man na leen mukk da ngeen di fo ñun man tituma sam papa bu bu ko neexon day am immeuble partout courtier la won comme Farba impo au domaine mais Farba Ngom baadoola yi man joxe rek suñu kër joxe na fa dépense 20 ans barki rasoul lay joxe rek la xam parce que aduna bi amul solo dañuy dé ñun ñëpp dañuy gas sul ñu ben jour nga bay fi say immeuble bay fi lépp xamul lo lay fekk kon kep kuy dimbali nit di xexal pour nit boy xex activisme waro xex pour am poste man soxlo mu poste man mi di waji bay bàyyi sax nationalité Sénégal mais ñom Macky Sall ay baadoola lañ te man mënu ma dëkk ak la keuru 1 milliard 300 millions rek lañu xamone kar farba woné won nañ ko yag na daw ñu woné pajoro yi ñu soxlawu len sax daf len bâche nga yeewu dégg ñu ne la doomu magu Farba Ngom Daha Diop la tudd xawma ma sàcc na cent cinquante millions dem Almadi loué fa benn appartement bu garaaw jël xaritam may ko vingt millions jënd oto di blow Farba Ngom yëg ko woo policier boobu El Capo policier bi Thiès la nekkoon moom lañ ci jiñoon xaw ma dafa reyoon benn booy xaw ma ñu affecté ko fële Thiès El Capo ñëw nangu oto bi au mu delloo ko far ba delloo ko ba mu di ci bulow moom tamit booy sax loolu la ñuy wax bulow dem Instagram wane ay photo nangu 5 million ci booy bi booy bi bañ nangu 5 millions bi yëngalu ko sax ñu ngi naan man de 5 millions rek la may mais garaawul parce que 15 millions yi jot na ci denc moo tax booy bi kaa kaasu ñu nangu ordinateur am nangu léppam 2018 kenn yëgu ko ñu xaar ba ay côté 2020 ci la affaire bi doog a génn. lu tax Farba porté wul plainte booy bi nee na chaque samedi booy bi mooy nettali de doomu farama bi mooy nettali doomu màggu Farba bi mooy nettali de sama papa chaque samedi ay mallette la indi ci kër ga di ko dugal ay mallette yow nan la ñu sàcc deux cent cinquante millions te yogoo ko sax xam nga nan la ñu xam ne booy bi moo ko sàcc parce que dañu booy bi dañu toog deux jours gis ñu ci la paa bi nekkoon moo war a sàcc xaalis dañuy jël suñu xaalis ci def lu vidéo bu Ousmane wane ay millions Vous seetaan fin bi dem une SN la fin bi yi di jox millions ñu fecc la bamboula C'est le Mumbai. C'est le cakaay Farba Ngom ñëpp yaakaar ne benn kër googu rek la am ñu yeewu xalaat TV wax ñu ne Farba dañ ko laaj ñaata kër nga am parce que OFNAC day laaj ku nekk lan moo tax sax Macky Sall di laaj Farba Ngom ñaata kër nga am parce que Akhenaton dafa ne Farba dafa truandé Macky Sall Macky Sall mere ko ne nag il faut nga wax ñu ñaata nga am mais Farba lan la lan la moom du DG du ministre lu tax ñu obligé ko muy def déclaration de patrimoine te Farba kenn forcé wu ko bu ko neexoon mu fen mu ne benn kër laa am wala ñaar kër mais pour titre pour wone ne mom faalé wul nday sénégalais pour wone ne impunité lu ko neex lay def ci réew mi policier sax dañ koy arrêté dégg naa mu leen yuux am na ko fi arrêté woon mu créer ko problème réew dof bew mu wone mu tey mu wone ne lii laa am 27 kër xalaat TV ba muy wax man dama juum sax ma ne mais xalaat TV li mu wax fii mat na 15 kër xalaat dafa ñu waroon wax 27 gàlle waxu ko. man dama ne xanaa war na mat 15 ma reculé film di compter xalaat nañu am na yeneen 4 kër Almadi muy cinq mais nan la nit di mënee am benn kër 1 million 1 milliard 300 Almadi ba pare amaat fa yeneen 4 kër muy cinq nga ne déetawaay ñu ne la Mamel am na fa yeneen cinq du 10 nga ne noonoo non des na ñu ne la cité kër Damel. am na fa cinq defe naa ma six nañ def cinq muy quinze ñu ne la point E am na fa ñaari immeuble huit étages huit du dix-sept ñu ne la am na euh, Sacré-Cœur am na fa yeneen ñaari kër yu sept étages du dix لا إله إلا الله محمد رسول الله دو 19 نونا لا سيتي بروس سيتي كير غورغي فيغا خا مني فوفو لا بروس دك بروس كوكا خامول ماي بريزيدان عثمان سونكو امنا فا 6 غالي 6 ان لله وان الينا راجعون خامو صاح لومي سينيفي باكن بو نيام نون لا ان لله وان الينا راجعون ماي لا ولا ان ان لله وان عليه خاوما راجعون cité Pras kër góor gi am na fa juróom benn kër muy 6 muy 19 plus 6 du 25 mu dem ba Thiès am fa yeneen ñaari kër muy 27 <laughs> la la la la ba mooy naan naan 27 gale kenn waxu ci te nag bi fi mu gën duufee comme ni ko kilifa di waxee ci rabbe nag bi fi mu gën a duufee foofu la amee kër ba amul kër Tivaouane Peulh de amul kër HLM de a HLM sax ça amul que Sicap de déedéet nag bi fu mu gën les quartiers les plus huppés du Sénégal fofu la farbangop Ngom VIP Macky Sall fofu la am 27 gàlle ngeen ne Sénégal c'est un pays normal 27 gàlle terrain ñëwgul aéroport Macky Sall daf ko caxat caxatee distribuer ko wa APR Farba Ngom am na fa benn terrain 1000 1000 mètres carrés xawma ak fan a 11 mais en tout et pour tout am on a terrain On a TV nañu passé jënd nañ ci auto. jënd na ben X7 X6 boo gissé da ngay jom sama mak amna ci bés man mako giss. mais Farba dernier religion, li X7 Xawma 60 millions xawma 100 millions ak ñaari Mercedes 40 millions waaw muy 100 millions te yooyu mooy oto yu mujj jën baadoo la xamul ñoowaan da koy joow muy njoowaan ak Sénégal nu mu metti xool leen ñun moodu moodu yi ñun ñoo yor Sénégal chaque semaine ñu ne xaalis ñun terrain sax buñ ko amee dañuy daw ba fat billaahi terrain sax buñ ko dañuy daw ba fat far ba am loolu yëpp te loolu la wane te loolu yëpp boo ko xayma mat na vingt cinq milliards sans compter xaalis bi mu yor liquide ñaata la ñaata la yor ci liquide demuloo fi yoon France ñu jàpp ko xaw ma cent millions xaw ci aéroport te ñu yow dëgg yeneen Haalpulaar di séddoo soixante dix millions. billaay barkeel sollaay Macky Sall mooy baadoo la ay waay Marème Faye yaay baadoo la senegal nu mu méttee xale yi di dee. accident yi hôpitaux yu bon yi ngeen jël xaalis bi di séddoo di def lu leen neex sëgam farba moo am fulla moo am fit farba dafa baax dañ ko war a moom sax ni ko war a amnistier ndax lu bon bon wax nañu li xew ndax li lii bu ko OFNAC waxul woon dañ ko gëm farba war nañ ko sax may tuuti mën yërmande ndax moom ci ci arrogance ak réewandeem ak impunité dara du dal man maay Sénégal am na sax fit mu wax ñu ne lii laa am ndax Macky Sall du du ñu mës a wax lu mu am Amadou Sall li mu am Dubaay du ñu ko wax jamais Aliou Sall neex sa daray boo ko gisee yéene ko sarax man de Aliou Sall bu ñu tase woon dinaa koy dinaa ko dinaa jël cent franc jox ko parce que boo ko xoolee dafa nduru ko walaakaana lay nduru neex sa daray noonu lañ lay reyee fekk ne fekk ne boobu ñu ngi ñu ngi koy jiiñ suñu six mille milliards dëgg la ak du dëgg sama yoon nekku ci waaye moom nee na timis bi nga ko doon fay douze millions ñàkk jom timis warna la fay 12 millions par mois nga koy récupérer baadoola baadoola rek lay do xam nga gor moy Ablaye wad nek président 12 ans ñaar keur rek lañu mësa a gis yow point E fan de résidence ak benen keur gi sa sa nga ko jënd ñu nang ko koy gor khalis du khalis du nit nit du ay immeuble nit ku bax warul sax am barke Rasool nit ku baax waro sax amna numu lu sax ben keur sax doo ko am wala boy am ben keur nga am comme sam pap motax yalla du ko sutural 99 ans muy dund parce que beuri sax da ngay gaaw de mais farba farba liko ko dese yalla yàlla na ma yàlla baal ñoom ñëpp léegi ñu domje, barki rasulilah xool leen Macky Sall ak biram bu rëy bi xool dom je riba bu lewul bala ngay dang koy gis soit dañu fekk pale ba déloger la ray la parce que doo doyal Aliou Sall laa wax suñu tase woon ci mbedd man dinaa yëkkati cent franc sarax ko parce que man présidence bi xaw ma lan la ko jëriñ xaw ma ko xàppiwul mais nit nit da ngay am sentiment waay mais ñi duñu ay nit moo tax ñu ñuy torturer ma Mansour Faye sax ko tane ndax Mansour sax dina jéem a jaay man maay Mansour Faye Mansour a ko tane sax ma non parce que famille boobu moo tane Marème Faye mi ngi dund Marème Faye boo ko gisee xam ne président bi am na lu ko jaral lu mu ko jëriñ mais Amadou Sall sa papa président lan la la jëriñ lan ah kii ku muy waxal Diouf non dama ne Amadou Sall sa papa nekk président lan la la jëriñ buñ la xoolee ci yow lan lal la jëriñ gisuma ko. yow ñu ngi la wane ngay football mëno sax bouger football may wax ñu naan ñu koy defal promotion. Seneweb Seneweb nee ñu ñuy defal Aliou Sall Amadou Sall promotion muy football 3 secondes lañu won bal bi mu koy protéger def ni bo leen di wane kay da ngeen di wane lépp lan la ko jëriñ ba ba baadoolo rek la mëna doon. Macky Sall doon lañu naxé parce que bo leen xol da nga naan ils sont pas matérialistes man bama nek Sénégal la ka doon wax wa Macky. moom lan moo koy dundal what makes him tick américain yi dafa am benn expression bu ñu what make you tick what makes them tick qu'est-ce qu'est-ce qui le motive man gisuma ko muy muy dawal oto bu rafet gisuma ko mu bëgg a lekk gisuma ko muy doxaan waa Macky Sall nekkate yoo boobu min ñuy rey suñu milliards di jënd ay kër ay Maroc ak ay ay Émirats ñu koy wax ak ay Houston jënd avion cent milliards kenn yëgul bateau Rolls Royce non non man man maa ngi waaj a gedd Sénégal parce que Rasulullah parce que man du ma jaam man du ma nangu nekk ci dëkk boo xam ne nit di la saag di lim leen limal yëpp te mënoon naa continuer il faut que ma arrêté live bi xaar ma commencé dox sax suñu commencé limal lim leen limal yëpp mënoon naa continuer di dem yemuñu ci loolu ñu ne nag du ñu dem <laughs> dee ñu ne du ñu du ñu mais li ci gën a soof ñoom am nañ droit ñu ne joxe njur bi mais xam nga la moom soof lu tax ma ne man damay joxe sama nationalité ma dem nekk Gambien bu dee jëlewuñ fi Macky Sall le 23 janvier bii laa wax de xam nga la moom ci soof Sénégalais yi dañ leen di bàyyi ñu def lu leen neex man nag dama sonn buñ ma laaj foo dem ñu laaj la lan nga nga ne laa di dëkk ci boo ñëw ci dëkk dëkk bi salte xasaw nga gis boucher yi di walangaan partout xale yi di ñu liggéey du dugg ay car di fay ay cinquante franc sa jabar di sonn say doom di sonn loolu boo leen doon yónni fii ay ay millions tamit dañuy sonn parce que Sénégal kër ngay yor doo benn doo kenn de doo yor sa jabar kër nga yor kër ñëpp di sonn ba pare sénégalais boo waxee ñu ne la yàlla nee na yonent bi nee na màggal Tuubaa ah màggal Tiwaawan sëriñ yi di leen di leen endormir man damaa sonn ci loolu. xeex naa li may xeex wax naa li may wax ci activiste tudde naa sama bopp njaagu Sonko génnal naa ko way deux mois ngi nii may def live te dinaa continuer live fii ba janvier xanaa ñu woo ma ne ma kaay liggéey waaye bu janvier jeexee gars yi xeexuñ activistes yi di xasante seen biir ñoom këram xum xaq di xas di xas kilifa au lieu ñu jàppale ko ah activistes yi topp ñu ci ginnaaw Sonko yow askan bi ñu bàyyi ñu leen di jënd ma gis ne le système est pourri xalif généraux yi di jàppale Macky Sall mais bu boobaa nag ñu ne nag ah bu boobaa dañuy nangu dogal rek parce que yàlla tamit du juuma ah. yàlla du juum boo nekkee ci dëkk boo xam ne nit ñi da ngay wax a wax ba sonn yeete ba sonn nit ñi bëgguñu avancé yàlla moo la bëgg jox la net réew bu naat am jàmm indi la benn guerrier Sonko mu xeexal la.

lépp ay dóor la même grève bi sax man gëmu ko yaakaaroon nañ ne xëy na Barthélemy bu ñëwee booy yëpp dañuy bàyyi seen liggéey dem ànd ak moom wala booy jugee Géejawaay ñii jugee Pikine moo tax ñu def ñu nan la mais grève bi mun ñoo mënuñu koon dàq ba jeudi sénégalais xamul li xew ñu bëri jànguñu ñu bëri xamuñu lu xew suñu dund xamuñu lu neex moo tax nag dëkk bu mel noonu xeexal ko day metti ñun nag dinañu xeex ba ba ba fu ñu mën a yem waaye duma fi nekk chaque jour ñu dem ba ba victoire bi jege ñoom Sonko dellu ginnaaw man condamné wu ma sénégalais fi nekk ni de ñoom Sonko laa wax di ñu xeex ba mu ñëw fii di dellu ginnaaw buñ ko defee ma bàyyi ma xam ne nag kon système bi ñuy wax am na parce que Sonko bi jege jekku Macky Sall ñetti yoon ñaar yoon première fois moy le 8 mars Sonko ka jëpp deuxième fois moy le 10 novembre bii moo Barthélemy ñu jëpp troisième fois moy instant bi ñu toll puis ba janvier ñoom Sonko dañu jekku Macky parce que nous Sonko amnañu légitimité légitimité pour guen nit waaw muy kilifa

Nous xamnañ ne buñu daano privilège yëpp a yàqu moo ñom ñu ne Mahmoud Saleh Mahmoud Saleh ne bu ñu gañee dee nañu Mahmoud Saleh ne na bu ñu ñàkkee élection maire yi soxlawul sax ñuy dem 2024 <laughs> Mahmoud Saleh loolu la wax man tam loolu la wax bu Macky Sall élection yi man pare naa soxlawutul yéen tam soxlawutul ngeen di xeex nañ ko bàyyi rek. comme yéen loolu lu ñu wax ñu ne yàlla baax na yàlla baax na Macky Sall bu ñu ko bàyyee mu gañe ñun tamit dañ naan mais la mooy ndey ñu koy bàyyi muy sàcc élection lu dal la maatam mu ne la doo bokk jaajëf béya ah lu dale la mu ne la doo bokk di jël ay préfet ñu jaajëf Antoine Diome est-ce que duñ ko dàq sax dañ ko war a dàq parce que ministre intérieur boo xam ne ay ñombee rek lay def Macky Sall da koy dàq Mansour Faye dañ ko war a dàq ndax gis na juge kii yaa ngi nii transporteur yi suñu 1000 milliards Covid lu leen neex ñu koy def voilà gars yi deux heures de temps laa leen waxoon ñu tàng yokkal naa leen ci 20 minutes xaaral ma yokkal leen ci 10 minutes après nag ñu ñu toog bu demee gàlle xoolaat information yi suba ñu continuer def suñu live rek man de man de saa yi man maa ngi si sama jàmm man boo ko xamul. li tax ma am fit nii di leen attaque faale wu ma leen man maa leen ëpp baatin tey xoolal saa yu ma euh, euh, euh, bu yàlla defoon ma ne damay ñëw Sénégal damay ñëw du ma ragal billaahi wallaahi taala parce que man faale wu ma leen ñun dañoo dund ñun Macky Sall dañ ko yërëm Marème Faye Sall dama ko yërëm <laughs> la ilaha illallah milliard xam ngeen la mooy milliard li ñu ci mën a def yëpp mais ñoom dañoo réer ba xamatuñu sax xaalis xaalis safatu leen dara ñii dañoo dañoo jara yërëm dañoo alku Farba Ngom dafa alku barki rasulaay dañoo alku Macky Sall dafa alku milliards sax xamutuñ lu muy jël oto bu rafet sax mënutuñ ko enjoy moo tax milliardaires yu bëri di drogué wu milliards bëri di naan dof dépression mënutuñ nelaw ay Michael Jackson dafa demoon ba naa est-ce que est-ce que ñu ne xaw ma 3 matin xaw ma 4 heures du matin la recevoir duñu nelaw de ay deux heures de temps trois heures de temps la ñuy nelaw dañoo réer dañoo alku te xolal mujj bu ñaaw la ñuy ndara mujj ndeysaan billahi barke bu Sonko dëgëre ñoom Sonko bu ñu Macky bu ñaaw la ndara mujj waaye bu ñu ñoom sax Macky di rey benn par benn jékki-jékki ñu ne la kii feebar na Alioune Badara Cissé feebar na dee jékki-jékki ñan la Guirassy accidenté na jékki-jékki ñaan la Khadija maye koor otom bi pono bi ñu rey ko otom bi pono oto bi la ñu bëtt kii boo leen ko fi jëlewul dina leen rey yéen ñëpp benn par benn barke sollaay Iblisa fa ngemb de Marième Faye Sall ak Macky leen ngemb te Iblis yàlla da ko amay doole billaahi bat bat fi rasul rasulaay mais nak am nañu espoir am nañu espoir ko PROS comme génn na activistes yi genn mais da ngeen war comprendre Sénégal dafa bari ay jaam activiste yi daf ci am ay jaam ay traite politiciens yi daf ci am ay jaam ay traite xol fatou Fatoumata Sow Tamp au début da doon yuxu pour ñoom Macky Sall woo mais bañ démé ba ci biir ñoom Macky Sall dañ ko jël mu pour mu rax fexe ba jege Sonko Fatoumata Fouta Tampi dañ dem ba ci biir ñoo Macky Sall woo ko ne ko léegi dangay fexe nga woo Tunkara nga yuuxu jooy dañ maa jàpp dañu téye sama doom loolu la def Tunkara mais yaakaaroon na Tunkara bu nooy bopp la Tunkara bu nekkoon nooy bopp day def comme ah, comme kii rek Akhenaton ndax Akhenaton moom dafa il a baissé sa garde du mën a dafa nooy bopp mais Akhenaton dafa dem mu gëm lepp lu ko Fatou ci tamp mais heureusement xana Akhenaton amul accès ci ñoom ci euh Sonko comme niko Ousmane Tounkara amee Ousmane Tounkara day wax ak ñom Sonko chaque fois mais wa affaire luñu ñu bëggoon mooy Fatou Macky tampi ñëw joy dañ ma japp dimbali ma ma dem Mali xana xanaa dégguloon audio bi dimbali ma ma dem Mali Tounkara nak gën ko muus ne ko lan nga bëgg ma def lan nga bëgg ma def mu ne ko dimbali ma nga dem mais Tounkara di ko enregistré parce que Tounkara jàppoon ni kii du ma ko woon comprendre mais gis nga Tounkara bu bu bu wàcce woon dañuy fexe Fatoumata day fexe ba jege soo ko wax nag dugal ko ci affaire bi mel ne affaire Adji Sarr comprendre Fatoumata su Fouta Tampi dafa dangereuse mais du moom kese gis nga euh, Sénégal sëriñ yi ku nekk sa bopp du ñëpp nag daf ci am sëriñ yoo xam ne jiitaluñu Sénégal Sénégal moo bëri ay baadoolo parce que dafa yomb Sénégal dafa neex a xamul xam tax xam nga man lu mel na man dafa yomb ma nekk fi di wax parce que man comme ni leen ko waxee 97 laa dugg Amérique comprendre ku yor xaalis mënoo ko mënoo ko mënoo ko jënd ku am xaalis mënoo ko jënd xam nga kan ngay jënd ku mel ne Jibril Ngom Fatou Mbow Sultan nekk ci dëkk mu loo appartement Fadam bi dañ ko doon génn appartement ba pare oto bu mu jëndoon mu am ay bor kooku day neex a jënd nga nekk jigéen bëgg sol cheveux yu baax mënoo ko bëgg sol or xam nga ñu woo la far ba nga woola wàcce 4 x bu bees tàq kooku day neex a jënd mais ku mel ne Mister ku xam àdduna man matérialisme man man chaque guddi étoile yi laay xool billahi wallahi taala balaa may tëdd démb rek maa ngi doon seetaan benn scénario ñuy wax un volcan bu pas les Yellowstone tay bu explosé won ba hyper volcan adina sax tukki vous n'êtes ah, parce que saxar vous bi pas sangay bi bi ak gi ni débordé ak doomu tal bobu day dem ba pas aduna bi lay soleil bi du jàll dëkk bi dëkk ay sedd nit ñi dee ñëpp mën nañu dee man yooyu laay si am na un ma Nous temps mais damay seetaan ba ci yàgg nelaw je dañuy wax astéroïde astéroïde un astéroïde lay doon ñu ngand presque ay 10 km. imagine leen vous 10 km carré di daw à l'heure nous dal ci suuf bu ci il y a 60 millions d'années lolo un dinosaure 66 millions d'années ben astéroïde 7 euh, miles 7 miles moy ay ay 10 km, 12 km, carré mais vitesse bu mi doy mo imaginez le 69 000 km à l'heure c'est mon waaw parce que forty three thousand miles per hour boobu bu dalee ci suuf si dafay mel ne yéen a ngi rappelé Hiroshima Hiroshima Nagasaki japonais yi dañoo dëgëroon bopp américains yi ne euh, deuxième guerre mondiale américains yi xam ne ñii da nga leen di rey rek waaye du ñu mës a bàyyi xeex moo tax mu sànni fa bombe bombe bombe Hiroshima dañ fa sànni benn bombe atomique ci saa si dafa naa. est-ce que 000 personnes sont ci parce que bombe bombe dafa graw ville bi yëpp lay raser mais ben bomb rek rey lu mat 300000 300 000 personnes Nagasaki a 80 000 personnes mais gis nga astéroïde bobu bu dalé ci souf day 9 milliards de bombes Hiroshima 9 milliards bombe atomique dalando fenn aduna bi yëpp comme comme volcan bi déjà tangay bi tangay bi génn lolou la thermal radiation radiation thermique radiation moy ça. tu bo talé xal xal lu lolou bo défé ni solo ci kaw affaire bu radiation la vitesse bu voyager ah, deux ah, lu carré lépp lay lakk ñëppay dee ci instant yi après day continuer di law ci àdduna bi saxaar si dem ba nëbb soleil bi dëkk yëpp day mujj sedd guy nit ñëppay dee man yooyu lay seetaan man yooyu laay seetaan cest xam nga tamit nit ki da bu la yàlla bindee da xam li la yàlla def ñoom Macky Sall dañoo réer gëmuñu yàlla ñoom Macky Sall gëmuñu yàlla c'est-à-dire ñoom duñu duñu jékki-jékki rek tiim àddina euh, jaww ji xool li mën a dal nit yëpp nit ñoo tal li yëpp yëpp dañ ko tal ay sonko ay élection dañ ko tal ndax li may wax ni tey bu amoon volcan yële son bi jékki-jékkoon rek explosé comme explosé boobu mën a wax wala benn astéroïde man maa wax sax man maa wax sax sa kii astéroïde deux kilomètres carré rek day tukkil àddina astéroïde deux kilomètres carré bu daloon New York day raser New York yëpp mais après tàngaay bi ak ak saxaar si ak kii débris yi débris yi génn dem ci kaw dem ci kaw day yàq couche d'ozone bi gis nga couche d'ozone daf ñuy protéger contre les radiations solaires léegi astéroïde bu bu bu dalee ci suuf explosion boobu day yéegaat ci kaw daal di détruire couche d'ozone bi nga xam ne moom mooy ñuy protéger ndax ndax euh, euh, jant bi dafa tàng tàng boo xam ne

noonu la ñëpp di deewee man yooyu laay xool xam ne yàlla moo ñu créé ñu ñëpp te bis dina ñëw ñu dee dañuy dee mais ñu Macky Sall dafa mel ne duñu xalaat yooyu dafa mel ne duñu xalaat ibli duñu xalaat dee même boo gëmul yàlla sax boo gëmul ne safara am na àjjana am na mais feebar am na ñoom chaque jour ñu gis ne feebar am na ndax Aliou Sall Amadou Sall ku ko xool xam ne dafa feebar li ko dal xëy na bu limi la mais ñoom seen yoon

moom mi ngi compter ay milliards mi ngi xool kër bi mu war a jënd Dubaï kër gi mu war a jënd Maroc kañ laa fay dem kañ laa koy visiter chaque instant téléphone mi ngi mi ngi sonné Macron mi ngi koy woo Biden mi ngi koy woo talluñu ñu ñoom dañuy xëy rek dee dañuy xëy rek màgget nee naa la am na fi benn golfeur bu ko bu mu fi dal Arnold Palmer mu dund presque ay quatre vingt quatre vingt trois ans quatre vingt quatre ans journaliste yi du ko laaj mu ne moom dafa découragé ci àdduna bi lan moo tax mu découragé nee na mënul gëm ne am na quatre-vingt et quelque moom nee na addunaam gaaw ma ne ko dina gaaw kay parce que yow milliardaire chaque jour liggéeyuloo yaa ngi golf yaa ngi tennis yaa ngi ci jigéen ñi yaa ngi ci lekk bu neex yaa ngi ci avion personnel ñoom Macky Sall vie boobu la ñuy dund jaru ñoo ñee de te ñu si bëri mujj bu ñaaw la ñu ku ci amul chance ku mel ne euh, yaay jàmme ana yaay jàmme tey li ko dal neex na boo amee ay milliards te ñeme te mënoo génn lan la jëriñ ana président Haïti ana Kadhafi ñoom ñëpp mujj yu ñaaw lañu mujj ana Alpha Condé de jaruñoo tamit bu ñu deewee safara lañu jëm bu dee safara am na bu dee safara am na ñu deewee safara lañu jëm te ñoom xam nga àdduna la moo ci gën a soof du ñàkk méttiwul xam nga Sénégal lu tax ñu mun lu bëri ñu mun lu bëri parce que ñàkk rek la ñu xam xamuñu lu neex comme man man li tax may révolté damaa bëgg li neex li ma li ma dund ak li may gis ci TikTok bi kër yi may gis ci yi may gis ci TikTok plage yi may gis lekk yi façon sol yi dama bëgg Sénégal yi ñu yu set yi oto yu rafet man laa bëgg Sénégal yi dund ko mais xamuñu ko

ministre yëpp ñu nangu seen kër nangu seen passeport mënatuñu dem mënatuñu ñëw booboo métti Farba Ngom tey mujj bu ñaaw la ndar mu lay lay mujj nañu dem day jaay réew rek di wane ay vingt sept gàll nañu dem loolu nag moo tax ñoom seen bakkan lañ ci teg Farba tey boo gisee mu jël mu fexe ba ne day gañe day sàcc maata parce que xam na ne Sonko bu jëlee nguur gi Farba xam na ne Sonko bu jëlee nguur gi bakkanam moom lépp lay perte loolu nag lu ko fi jar ngay dund dund boo xam ne chaque jour yaa ngi tiit yaa ngi gersu waa affaire yi fi mu nekk dañuy tiit dañuy gersu ñoom ab dumbaw mais li ñu nekkee neexul parce que ñoom ñu ngi jàpp seen xel ne saa yu dëkk bi yëngatoo rek dañuy tiit mais loolu du c'est pas une vie le 10 novembre waa affaire yu bëri commencé woon nañu ut ay garde ay garde ñu garde leen Auchan yi dañu changé bunt yi <laughs> toko yi toko yi dañu wut ay garde tek fa mais lolou du dund gis nga le 10 10 décembre bi buñu ñu gisee Y'en a marre wax dañuy tiit gis nga kilifa li wax non ak ak mari sang Sagna démb les gars il faut vous mettre à la place des gens de la paix il faut vous mettre dans le pot fi mu nekk ni non violence jàmm rek la ñu bëgg ay waay jàmm jàmm jàmm dañoo tiit nelawatul ñoom ñëpp ñu jël nañ seen xaalis yóbbu ko ci banque yi par kirosol am na yoo xam ne ñu commencé jaay seen kër Farba dina commencé jaay kër yi vingt sept kale lépp dina ko jaay balaa Sonko di ñëw jël xaalis yóbbu France mais ñoom xamuñu ne fu mu nekk mënatuñu làqut fenn même boo leen demoon France foo leen mënti dem après mais lii nag du dund am na lu ko gën a yomb xam la moo ko gën a yom delloo ñu suñu réew ñu baal leen lu ñu leen mën a baal mais duñ ko def du ñu delloo Sénégal de parce que dañoo soxor ña yéenewuñ ñu c'est-à-dire yéenewuñ ñu béyaa mais loolu nag c'est un crime extraordinaire Macky Sall yéenewul sénégalais barke Rasulullah li fi amoon doo fi amaat mattu fi amoon doo fi amaat li jël ay six mille policiers yu bees Sonko ko wax ne six a policiers da nervi yi ci lañ bokk dama leen gërëm par personne ak ñoo réer xaalis baaxul l'argent ne fait pas le bonheur Marème Faye Sall nag moom dañ koo commencé jàpp nañ ko Marème Faye Sall xaw ma kan la mën a nax di waaye mënatul nax benn Sénégal axam ne toon nee na léegi comprendre na ko man ba ma ko comprendre du tey maam seen yàgg da ko attaque waaye man tamit yeewoon naa ci moom mais axam ne toon mu ngi doog a yeew nee na nekk ci yoo nekk ci Marème Faye mooy mii kër bu mat bon bi mooy sorcière bi mooy joxe maliit yi mooy dalal sëriñ yi di leen bernde lépp pour ñu naxasal xel yi waaye mafia kàccañ moo fi ne billaay barke sol lay dama leen yërëm waa Macky Sall gis nga gis nga euh, euh, caat li mu génn nii ak kii ak euh, gimari wax affaire kilifa fi nekk ak téléphone yaa ngi riir fi mu nekk ñu koy woo lan la war a def dañ ko war a bàyyi wala war a ñu ko bàyyi ministre de la justice ñuy wax ak procureur Macky ñu ngi wax ak moom ah saay le 10 bi kat gars yi dañoo bëgg yàqal assemblée bi nan la ñu war ñu bàyyi kilifa wala ñu jàppaat ceer nelawatuñu Sonko nag génnaat tey tuddaat kilifa ah gis nga Sonko ni mu génnaate nii tuddaat kilifa du ñu nelaw mais loolu lu ko fi jaar dund boo xam ne bu dëkk bi nee marché rek ñoom ñu Youssou Ndour nelawatul moo tax lu tax de temps tànk temps comme démb nga gis ay su Diop Fall ñëw ñu di attaqué nii Macky Sall ñoom Youssou Ndour dañuy jéem a protéger waale seen bopp mais loolu génnewu leen ci de <coughs> ay dugal benn tànk génn benn tànk non non wax leen seen waaj dëgg wax seen jigéen bii dëgg muus sax boo ko toppee ba mu sës ci biir néeg day wëndeelu song la waaw Sénégalais yi dañoo sonn fi mu nekk nii ñun diaspora ñun sonn ñu rek barke Rasulullah bu ñu waxee ñu yaakaar ñun suñu bopp la ñu xeex man sonn ma de billaahi wallaahi taala man de maa ngi sant yàlla maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi entraîné di xaar sama liggéey heure bu ñëw baax na bu liggéey boobu baaxul ma dem uti beneen liggéey ñu nammuñu dara waaw léegi daal gaa yi situation bi ñu ngi xool ñoom Sonko daal bu ñàkk fay marche bi mom buñ ko annulé ala kulli aali lu 10 buñu annulé marché bàyyi nañ kilifa ko nañu dem assemblée nañ leen pression ba élection yépp gaay ma ngi wax ji du kilifa wax ji élection yi day jaar yoon bu jaarul yoon ko élection du am yenn yenn bu élection amul ñu ne ko dañuy ont suñu voilà gars yi live bi loolu kontaan naa ci yéen ba suba incha allah ñu eggali waxtaan vive vive vive vive le Sénégal ba suba incha allah merci.